mbokk yeeg xarit yi ngi leen di euh, nuyu di contane sa su di ñëw ak yeen seen émission tam-tam euh, rawatina nag mbokk yi tam-tam euh, du week-end parce que nak wax deug yalla je suis très bien entouré avec de charmantes dames waaye tamit yeen yi nga xamante yeen bi ñi sétane xam naa nak vraiment vous profitez du week-end surtout samedi bi nak pour def une petite grasse matinée dal di koy kal nak bo leen yeewoo nak ci li nga xamante bi mom moy émission tam-tam mbokk yi nag et nous préférons nak sa su que ngeen koy sétane en famille parce que nak chronique yu ci bëri fay laal ñi di laal en tout cas ñi ngi di sante di len fatali nak ni a ngi jot ci canal 5 bu TNT mbokk ak xarit yi ñu ñëw ak yéen ci tam-tamu bi ñu né histoire de couple and ci avec la belle maman djé alors maman sa su n'a que daf ñu ko doon dik mu né len dal vraiment ci mois de mars bi xam nga lan lay ñëw ak yéen ci mbégte parce que ça su ne bu ñu né histoire de couple les gens pensent histoire histoire histoire lu de dañuy xawa expliquer li xew ci couple yi waaye bi yoon nag ñu indi jàmm ak salam parce que am ñu nga xamante bi ñu naan couple complémentarité la ñi ngi compléter wu di andando di tabax am un projet de vie et ça c'est important mbokk di nañ gis un exemple dans quelques instants suñu jógee ci lolu suñu xarit Kodou euh, Mohamed dal ne ah c'est vrai que nak lég lég xalé yu ndaw ndaw ndaw yi dañuy am problème parce que duñu xam exactement lan lañ leen di jox ñu lek surtout nak bu ñu amee six mois maman code nee na dina leen jox ay recettes yu nga xamante bi surtout lu am importance moy du cher te dana permettre xalé yi ñu grandir normalement moo ki ñu dugg ci lool nak an nak ak suñu xarit oh kooku suñu xarit la Karine Joannel mu ne ci conseil santé xaar ma lire ko sax normalement mu ne rachi anesthésie mbokk yi saa su ne Karine elle le fait exprès day indi ay ay termes yo xamantene bi ñun duñ ko comprendre mais nak je comprends parce que docteur yi ñoo koy jox mu ñew ci plateau bi Karine ne ci ñew ak ñun dans quelques instants ñu daal di ñëw nag ak ki nga xamante ne bii mooy Maimouna Sy madame Guèye madame Guèye nag moom dañuy kontaan ci moom parce que dañu ne euh, vraiment nit ki fonkal li nga xamante ne bii euh, euh, moom nga doon ak vraiment dëkk ba nga ne mu tuddee nag chronique bi lu ma neex lool. label 221 maanaam lépp lu nga xamante ne bi ñoo ngi koy defaree ci suñu dëkk ñu bugg vraiment ñu àndandoo ñu ni tamit di ko jëriñoo tey mu nit ñu li nga xamante ne bi moom mooy der kon nag ñu xool fan la ñu jëm ak madame Guèye Maimouna Sy ci label 221

yang may parce que kimono yi euh, ay indi mm-hmm. mu nek tendance nga indi ñu contane way dañuy gëna a mm-hmm. parce que dañu ci mois de mars bi da ñun ñe mm-hmm. dama leen di bégal nga ñëwaat ak ñun ci couple bu nga xamantene ne jappalante nañu ba lepp ngi lay nuyu dalal comme je dis à tout le monde c'est un énorme plaisir de te recevoir le plaisir est partagé yaa xam <laughs> uh-huh. ñun aussi dañuy kontaan lool saa ñu fego ak yow ak uh-huh. sama collègue de valeur yi nga xam ne damay am bégte samedi saa yu jotee rek xanaa uh-huh. dama leen di gis ñu nekk ci jamm ñun ñëpp mais duñu fàtte ben yoon aussi suñuy téléspectateurs yi ñu xam ñom ñoo safo la RTS2 diko sétane sa su nekk histoire de couple nak daf leen promettre woon que ni mois de mars bi ni problème bëggu ci dara lépp luy bànneex dal ci lay dox amul histoire fi toll ni bànneex rek dal ci lañuy dox ndax ginnaw sëy yi nak yenn saay mu am jafé jafé waaye yenn saay tam mu am bànneex nañ comme ça très bien bëgg ñëpp <laughs> en tout cas maman contane vous té dans quelques instants mbokk bu leen ko parce que nak am une histoire bu nga maman dina ci and ak histoire de couple way mbokk bu ñu joggé ci lolu xam nga nak bu couple bi formé wo ci yalla lañuy ñaan moy am gi bu ñu ba ñaan ñu pour ñu mag ak normalement il faut une très bonne santé pour am santé bu baax

Karine moom comme dafa mën topando ah bon donc euh, fii la ko improvisé de parce que bi muy ñew indi wol won beere. ah d'accord. mais comme légui livraison dafa xew. D'accord. accord la woté wa mi ngi ah, merci maman dafa am ay topando fi wa mi ngi ay xeeti topando waye ba tey rek baxna na. kon Carine. Euh, Karine. Mhm. Euh, merci beaucoup dégg nga merci si li nga nopi tay xam mhm. naa mom dafa mën a tontuwaat. <laughs> alors may nuyu nak euh, maman mhm. yaa yayi ak euh, papa yi ñuy seetaan les futurs mamans les futurs papas parce que ñom ñep ñoo ci war a li nga ko wax sank daf ma neex moy mhm. la santé est dans l'assiette aussi mhm. bien pour les adultes que pour les petits Absolument. donc tay nak comme ni nga ko waxee rek nañu jël sen bic ak sen feuille noter naka lañu mëna def ba nu dundal bébé ci anam yi gën c'est do génnee xaalis bu bari di bayyi xel nak sama euh, kal yi nga xamné ñom ñoom ñoo ñuy seetaan yaay nga xamné ne ñoo sant faal ak ndoy ak jaay ak mbóoj ak etc nga xamné ñom li ñi gëna bayyi xel moy nan lañuy def ba duñ jeex parce que dañ naan damay nampal damay nampal mhm. euh nam ñom dañuy nampal war nañ lek way bébé tam war na lekk très très bien dinañ ci alors nañ ko xol euh, alimentation bébé à partir de 6 mois mhm. euh, waaye ci biir lolu sank ñi ngi wax santé dañuy jubal nak ci ki nga xamantene bi euh, mom lañu ñu dénk conseil santé muy suñu xarit Karine c'est vrai que nak topando léeg-léeg dina am fu mu baax moy topando lu baax <laughs> waaye nak di topando ci walu ay garab parce que Karine nan na li dama ko wara nan sa mhm. saa su ne dañuy bamtu nanu

Mhm. donc euh, j'espère que je serai toujours là chaque semaine tous les samedis. d'accord pour voir santé. Uh-huh. Euh, mais non non pas maman euh, mais a mais pourquoi qu'est-ce qui se passe. chers téléspectateurs bonjour à tous bonne matinée sur la RTS2. qu'est-ce qui se passe avec les deux. non je tente du mais d'accord. alors bon qui, Karine expliquer au courant de l'émission en tout cas bonne humeur plateau ñëpp di ngeen nekk vraiment ci jamm ak salam parce que jamm ci la lépp xaj mbokk yi waaye nag ñu ñëw ak suñu xarit madame Guèye Maymuna Maymuna saa su ne dañuy kontaan di feggoo ak yow parce que nag wax dëgg yàlla ci biir Sénégal yëpp yaa ngi fay dem di ñu indil ay euh, mbir yi nga xamante ne mën nañ koo jëriñoo ba pare ñi nga xamante ne bii ñoo defar doomu Sénégal lañu ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm tey nag nga ñëw ak ñun ci wàllu der maa ngi lay fay Yaxam mm-hmm. euh, di nuyu Kodou maman Kodou di nuyu maman Dieye euh, di nuyu maman Karine. Mm-hmm. <laughs> ak ak téléspectateurs yi nga xamante ne ñoom ñoo safoo di ñu seetaan saa su nekk. Mm-hmm. Euh, am mbégte ñëwaat ci label 221 comme ni nga ko waxee. ñu duggaat nag ci filière cuir. ñëwoon nañ si wante dañ siy ñëwaat du doy. parce que dafa nekk filière boo xamante ne dafa bëri opportunité. absolument waaw xam naa nag li si kanam nag rawli gët. boo xuusee rek. après ñu ñëw nag faram fàcce. très bien kon nag ma xuus parce que nag nag euh, ni may xuusee di ko démarrer te émission bi mbokk yi euh, dafa may neex parce que nag euh, vraiment léeg-léeg ñu indi vraiment jàng jàmmarloo yi ci biir couple yi problème yi waaye tey nag maman dafa ne nañu xool benn exemple à suivre kon nag mbokk yi ñu dem xool dellu si waat salaamaaleykum maa ngi nuyu waar Sénégal di jël gërëm nuyu bi nag di ko xaaj nag jël lépp jox sama jabar nag moom moom nekk na koo xam ne tey lépp lu ma ci wax rek mun naa ne wax xeeb naa ko ndax jàmbaar la nekk na koo xamante ni ku ma muñal la koo xamante ni tey mun naa ne wax tey bu yàlla defee tey ba ma nekk fii nii ba mën a góorlu ba nit ñi commencé sax am fuñ ma teg am na ci part de responsabilité bu doy waar. xam nga yàlla sunu borom bu la bëggee dimbali boole maag ku mel nii mu nekk koo xam ne jàmbaar la mu fekk sama lu neex fekkee sama lu naqari. jàppale manam timit su lu bëri des fois dañuy am problème suñu ñaar suñu néegu sey mu tar trop trop trop metti man ak mom mu met ba mo ne non tay c'est fini abana kasi mais yalla may na ko courage bo xam tin à chaque fois day ñëwaat defal ma yobuat ma zéro. lu jafé, to lolo tax sey yi di tas ndax mom dañuy am problème mu nangu ma togn ko wala mu togn ma day ñëw taxaw ñëw jéggalu ma ñëw na ma mala togn nak lepp nak lan côté bobu ma ko ci gëreum nak bëgg seyem ma nan tok di julli tay suma nexé neexee ma julli suma nexul may jema dag mais mom ba mu ba tay suma julli wul sax day ñëw na ma que yow fo tol tay est ce que julli nga ma na i waaw nga deug julli mu jog dem julli ñëw tok ñaanal ko xamna ni sax tay bo gisé suñu man ak mom suñu problème lu tax bu amé sax suñu borom safara ci ba man ak mom ñaari fan ñett fan lay jappati mais dañuy démé ni musu jàpp ben fan lañ ñu giif fàtte suñuy ay problème nek lima lenen lima ma bëggoon wax yépp wax na ndax vraiment jëkkër juma jappalé la jëppër jëkkër juma sagal bañ nako ba daf ma utal tur ciapalé la may wowe ñëpp ciapalé lañ may wowe fuma tok sama xel bi fumu mu lëndamee bu ma toogee ak mom day melni dama gis lèr ga sey metti na léeg mu neex lélé mu naqari mais muñ nit da ngay tam muñ muñ na nak ak mom ba paré jiw na ma loo ko muñal deug léeg nga dugg ci mariage yoo xamante ne doo fekk dara ñu naan la muñal muñal muñal nga naan ba kañ mais man tey laa gën a pare pour gën a muñ sax li des parce que li ñuy wax sëy ci kaw mooy lem rek li ci suuf yëpp naqar la xale laa nag aw ma benn conseil sama yaay laa nekkaloon ak sama sama yaay yaruma sama maam laa nekkal te sama maam avant muy génn àdduna à chaque fois da daan di waxtaan nankan dénk naa ko parce que moom amul ku muy waxtaanal te dëgg la moom ni mu naqaree dara man dama tàngoon suñu kër kër famille la da nga lu nekk mais grâce à yàlla ak moom tamit lépp jeex na ñuy jàppalante muñalante samay njëkki ñoom ñëpp samay xarit lañ dafa leen sax njëkki ay mag laa leen jàppee ñu jàppale man lool ci sama sëy man tey bu may toog di wax si wàllum jabar mun naa taxaw si Sénégal ba mu daj xaw ma de ku si ku si gis sa bopp tamit da ngay tooñ sa mun naa taxaw ne maa fi gën jabar parce que tamit olof Njaay dafa ne ku raaj jëmale sa kanam mu dël te ku si nekk la mu saf kaka macca rek ak mën a xam man lii laa xam mooy sama jabar mi ngi may sëyal mi ngi may toppatoo lu ci war mer moom su ma meree xam loolooy sëy soo meree yow góor gis ku la dëfal te góor bu nekk tey boo gisee mu takk jabar tey loolooy matuwaay moo góor xam na la ñuy ñaan yàlla ñaan yàlla góor góor yàlla dool ñu sutura waaw mu nekk nag euh, ay histoire yoo xamante ne dafa neex a dégg ndeysaan te euh, la ñu wax jafe naa ne ñëpp dañ koy confirmer muy sëy daal complémentarité waa loolu dëgg la yaa xam mm-hmm. xam nga li mag ñi daan wax dafa nekk dëgg koo xam ne kenn mënu ko euh, teggi wala boo fa li mm-hmm. neen loo fay teg lu leer lay doon mm-hmm. dañu daan wax ne que ne garab gi nga romb bëccëg garab gi nga romb guddi xam li muy meññ li nga fa romb bëccëg moo tax donc chaque jour expérience nga ne mag ñi dañu duñu daan wax naan waaw garab gi nga romb guddi xam li muy meññi mhm. la fa romb bëccëg ga tax tàccu leen ko waay <laughs> <laughs> waaw loolu day wane que ne uh-huh. expérience ni ko tubaab di waxee mooy mhm. def différence bi donc lu waay RTS daf koy wax de ñun ñu mhm. naan c'est l'expérience qui fait la différence exactement donc loolu dafa baax ci loo gis xam nga nit ni lay tàggatee sa biir kër ndax waxoon naa ko fi benn yoon ne leen sëy ci kër yi lañ ñu ko war a jàngalee bu ñu ko jàngalee ci sëy ci biir kër yi bu ñu demee fa ñuy sëyee dinañu xam nan la ñu war a toogee mais bu ñu nee prix bib rek ñu yóbbu ñu kër famille ñu dem sëy ji te xamuñu nan la ñu war a muñee nan la ñu war a supporter nan la ñu war a gérer nit ñi loolu dafay compliqué mais lépp nag base bi nekk yar parce que buñ la yaree damay wax a chaque fois ku ñu yar rek moo mën a yaraate ndax déjà ci sa yar yow ci ngay mën a corriger nit ki ba yaraale ko ni nga bëgg mu mel ko mu mel ko très bien alors maman mhm. li nga wax am na solo mhm. waaye dañuy ñëwaat ci couple bi nga xamante ne bi yow ce preneur de son yéen fa demoon mhm. alors affaire bi nakala teudé parce que nak lepp duma ko a diko di wax mhm. ci télévision mhm. waaye il y a une très belle histoire derrière ce couple là nga xamantene ne bi ku ne yaa ngi sa morom exactement li li nga wax noonu moy limay expliquer légui que ne moom ndaw si dafa soppi waa ndax dafa am yar Mm-hmm. moom dañ ko yar déjà mu ñëw fekk si ki nga xam ne mooy boroom këram mm-hmm. yàlla boole ak moom mu soppi ko ci nu bëri nu mu meloon noo xamante ni leen nii xëy na du loolu moo gënaloon ndaw si du loolu moo gënaloon jëkkëram mm-hmm. mais moom ci yar biñ ko yar mu yaroo kër famille mi ngi koy expliquer mu metti woon lool tax na bi mu ñëwee fekk jëkkëram moom waxal na ko boppam nee na da dafa dëggoon torop di def nii di def na leen <laughs> d'ailleurs ñu bëri xam ko ci uh-huh. mais moom ndaw si ci kaw yaram yaraat na jëkkëram ba mu tegu ci yoon daawul julli farataalu ko woon moom mu xiir ko ci muy julli ak yeneen yu bëri yoo xamante ne daan na ko def te xëy na tegul woon ci yoon doonul woon li ñu gërëm moom ndaw si tax na ba mu bàyyi ko di ko jàppale nag di ko sëyal te yàlla rek tax tegul bëtam ci ne muñ bi dafa am àpp ndax damay dégg à chaque fois ñu naan muñ amul àpp soo ko utalee àpp rek li ngay muñ doo ci am résultat ndax muñ moom da ngay muñ rek ba yàlla di la tegg lim la nattu mhm. donc loolu mooy histoire bi mu nekk mhm. histoire bu bu neex mhm. ndax tey jeune couple loolu yomb ci waa ji jaar yëpp nee na yenn saa yi da ko daan ne ko ne génnal kër gi demal seen kër nga ñibbi wala sax xanaa amoo kër demal fase naa la nee na mais moom day fi mu toog ne ko demuma fenn te moom xoolul ndax am jëkkëram moo ko tooñ xoolul ndax moom moo tooñ jëkkëram à chaque fois bu problème amee da bàyyi ba mu giif ndax moom nee na borom këram dafa naqari deret day ñëw ci moom ne ko baal ma àq maa la tooñ daal di téye sëyam téye njabootam yenn saa yi jëkkëram mu dëgër ci côtéem nee na du yore dara mm-hmm. mais moom comme dafay liggéey dina dem daan dooleem jël li mu yoon ñëw

lépp dafay leer kon daal lay lal li nga xamante ne bi moom mooy sëy bu ñu fas yéenee def mu neex mbëggeel am na ci solo am na ci solo bu baax nga yaa xam jigéen bu la bëggee xam nga ne lu ne la lay muñal jigéen bu la bëggee dina nekk ak yow ci néeg suba bu ngoon du lekk day mel ni sax xiful loolu mbëggeel moo koy def gisoo ne soo nit <laughs> Bo comme ni par exemple je me rappelle temps yi nekkee euh, étudiant benn jour dañu am sañu benn xarit boo xam ne dafa am ku mu mais kooku daal say bu ñu daan añ ba pare rek bu gisee waa ji rek day suur ci saa si

di nga ñàkk mu muñal la di nga dëng mu muñal la di nga def ay njuumte mu jàppale le ñëw la li ma gën a neex nag yaa xam mooy euh, weekend passé ak weekend bi dañooy euh, firnde da maanaam dañuy weddi loo xam ne loolu la askan bi yàgg wa mooy xale yi tey sëyatuñu xale yi tey mënuñu muñ yaakaar naa ne exemple yi on ak yeneen yoo xam ne wane wuñu ko te mu am ñi ngi wane ne que xale yi léegi dañoo dëggu ci sëy te ñi ngi sëy très bien alors loolu moo tax nag parce que comme ñun fa ñuy dem dafay gën a yaatu ci kër yi loolu moo tax RTS 2 ànd ci ak mamon Ndiaye di ko indi ñu koy gis Karine euh, mhm. nga sànni ay kàddu ci vraiment couple bi ñu gis parce que gis naa ne vraiment ndaw si xam naa ne am na stratégie parce que defe naa balaa ngay mën a def lii dangay xam sa waay ba pare xam fi nga koy jaar comme ni ko maman waxee baal ma ak ak woyof dafa mel na xaw na ci baax gis nga kii baalu te tooñu yàlla da koy gën a jox auteur cest à yow ki ngay baalu te mu xam ne moom moo la tooñ bu day mujjee diirus sax du xaarati nga ñëw di ko baalu parce que xam na ne man mii su ma tooñee dama war a baalu comme kii nu mu may baaloo te tooñu ma et il y a autre chose gis nga dans un couple quand il y a des des soucis xalaat len sen période yi nga xamanteni ni nga a ngi doon ngoro wala début sëy bi ngeen xalaat ni ngeen meloon dina len delloo ci touti sen xel yi dina ko delloo ci touti parce que des fois couple yi suñu amé problème dañuy dañuy focaliser wu ci problème bi daf ma def luma metti waw duma ki mais bo xalaatee fa nga daan dem ak mom na nga daan def ak mom c'est comme ce que Codou dit je la rejoins un peu gis nga mbëggeel dafa neex ba nga xamné même su fekkee sa xel daf ko fàtte yow forcé ko mu fàttaliku période boobu nga xam ne da ngeen ci da ngeen di bëggante ba léegi sax mais mm-hmm. di nga fàtte problème bi ba yow nga mun a ne ah man kat mbëggeel bii moo gën a fort Mhm. donc rarement arranger problème mhm. je pense que ça c'est un exercice qu'on devrait faire euh, euh, maman. Mhm. Euh, vraiment ñu gis que vraiment li nga bi nañuy agir parce que ci bir mer ma maman mi expliquer day mer fay que pour contenir cette colère. Euh, li nga wax dëgg la yaa xam contenir ko ndax loolooy wax ji dafa jafe yomb naa wax wante jafe appliqué. Mhm. comme ni ko Karine waxee oyof bi ak euh, bu ñu tooñ laak ñu ñàkk la tooñ nga dem baalu yombul de. yombul dara dara <laughs> donc je pense que waaw il faut nga oyof je pense que ne euh, rééducation la. Mhm. boo xamante ne saa su ne chaque jour dañu war di ko def ci biir kër yi ci biir néegu sëy yi et puis lépp ci biir communication. absolument waaw jokkoo di échanger di waxtaan bañ a nëbboo. Euh, mois de mars bi daal yaakaar naa maman sujet yi muy indi ak exemple couple yi muy indi. Mhm. bo xolé bo xol mhm. li nga xamantene mo indi succès bi ak mhm. réussite bi. communication bi. ak baña neubante bek beeg amna ci solo bu baax baax. Euh, euh, alors maman est-ce que couple bi ñom ci biir famille bi lañu dëkk wala dañu beru. waa nañu. Mhm. Euh, bi ma jël bii paase ñoom dañu nekk seen biir euh, belle famille. mais ñii dañoo beru. Mhm. mais beru bi moom mi ngi koy wax nee naan beru ak ñàkk a yëpp du ci dara. Mhm. ndax terewul muñ rek mooy base bi ndax fi nga beru it di nga dem seeti ñi nga xam ne ñoo bokk ak sa jëkkër. mais mënuñu sant tamit jigéen ñi ci loolu te duñu sant góor ñi. parce lu tax yaa xam. gis nga ku ko def ku ko wax la bëgg. te gis nga góorgóorlu bu ko nit di def waaw góor da ciy tey jii nii bu fekkee ne moom mi ngi góorgóorlu ci jëkkëram di ko sëyal sëy bu rafet góor gi tamit tax am pour reconnaître ko wax ko askan bi di ko dégg moom dañ koy jaajëfal parce que bëri na ay jigéen ñu découragé ñoo xam ne mhm. seen ji góor dañ leen santul benn yoon mhm. gërëmuñ leen benn yoon parce que li ñuy def sax duñ ko gis mhm. te nit buy góorgóorlu rek bëgg na nga gis li muy def donc nga gërëm ko ca ba muy dund <laughs> exactement ba nga génn <laughs> àdduna taxaw ci mbooloo bi waaw <laughs> damay ragal nga am problème damay ragal nga am problème parce que ragal naa nit ñi ñëw RTS 2 fees fi dell ñëw seet si la naan la mama munu ma won woon lok sama jabar est-ce do ma génne ci histoire de couple ma xool. non mais c'est tam xam dina len jox courage. exactement xam nga ñun sax lolu mo waral tam-tam ndax ñun lepp lo xamanteni xamante ni moy jammi askan bi rek ci lañuy dox. Mhm. donc fierté la ci ñun buñu gisé yu melni nga xamné ñi ngi ci seen jamm nam nak problème yi nee du ci ñak ndax dañuy bëgg rek mu reer mhm. lèr seydu ñak jafé jafé mais communication bi sama collègue bi wax da ci am solo. mom moy tax lepp lo xamanteni moy solution bi wara tax problème bi réglé wu di ngeen ko trouver lépp nag andak dal ndax nit boo dalee sama yaay danaan à chaque fois boo ne tek tekk dalay wan yoon donc bo gisee sa jëkkër sax xëy na am na nu mu nga ne tek ci sa coin rek bàyyi ko ba dal mhm. après nga ñëw waxtaan ak mom. li Karine wax dafa am solo après yow yaay rus parce que da ngay xam ah man de kii jaay naa ko lu mhm. mais terewul ànd naa ak yaram ñëw wàcce mhm. boppam wax ak man kon man tamit na xool bu beneen li lii dootuma ko ko defati donc ñu daal di gën a jàppalante di gën a ndax nit bu leen yàlla boolee da ngeen di jàppalante sëy noonu la joxe wuñu sax xëy na ay conseils wala ñu leen di wax leen li ndax xam nañ ne lu ñu xam rek mhm. ñoom ñi toog di ñu ñoo ñu ko gën a xam mais waxtaan la rek mhm. échange la ñu bëgg rek ñu gën a góorgóorlu gën a téye sëy yi gën a jàpp borom kër yi mhm. kër yi aussi gën a jàpp soxna yi rek ñu daal di doxal <laughs> comme ça mu neex <laughs> mu neex te nag ñu lu ñu bëgg mooy na neex <laughs> waaw parce que exactement bu neexee ñëpp dañuy kontaan ba pare ñëpp nekk ci jàmm parce que sa doom an sëy kenn foo ko gis mi ngi ree waaye sa doom sëy kenn lan lay nirool mm-hmm. muy jooy léeg-léeg sax mu dem ba am goitre mm-hmm. am na ñoo xamante ne bi sax ay goitre ak ay problème xol lañ fay jëlee mm-hmm. en tout cas maman dañuy kontaan yaa xam nga baal ma wax nañu benn affaire bu am solo bu ma marqué ci reportage ñaar ma def ñaari couple yëpp dañ ma ne ñun de rusati nañu tàqalikoo ndax li ngeen ñëw jël ñu ba pare. Mm. ndax bu ëllëgee rusati na ñu ne ah. ñii la ñu jëloon. après tey nekkatuñu. archive la mm-hmm. kon nga xam ne RTS2 mi ngi defar askan bi. parce que sunu <laughs> émission yëpp mi ngi sur YouTube. mi ngi noonu euh, en tout dañuy dañuy nag wax dëgg yàlla parce que mois de mars bi dañu bëgg jigéen ñi ñi nga xamante ne bi dugguñu. Mm-hmm. Euh, ñu def benn pas. Mm-hmm. parce que léeg-léeg c'est vrai que. àddina façon àddina moo yomb mm-hmm. du couple rek wala liggéeykaay yëpp mm-hmm. yëpp difficile mm-hmm. mais je pense que yal na nu yàlla jàppale ba nu am xolu muñ yal na yàlla jàppale ba nu déggoog ñi nga xamante ne moom la ñu war a déggoon daf cay am solo lool maman ñu ngi lay remercier <laughs> euh, c'est toujours un <laughs> grand bi euh, kon nag euh, mbokk yi nu xuus ci émission bi ñi ngi wax nag mbirum couple waaye nag dem ci ñi nga xamante ne bi ñooñu tamit ah, am nañu solo lool ci couple yi muy xale yi sànq maa ngi koy wax ak madame Cissé Kodou Mohamed nee na nag à partir de 6 mois ah, a waaw kon nag gisu noonu nañ recette yi nga xamante ne bi tey maman Codou indil nañu ko ma ma Codou nga ñëwaat nag ci li nga xamante ne bi war nañ ko mën a jox mm-hmm. xale yi à partir de six mois waaw euh, yaa xam damay door ci li nga xam ne moom moo sabab lii euh, dama dem si benn grande surface ma gis benn yaay boo xam ne mu ngi def si kadiwam ay euh, kii yu bëri ay petits pots yu bëri mm-hmm. waxuma ne xëy na waruñ ko jënd wala xëy na bugguma daaneel ñi koy jaay mais euh, li gën lekk li médecin yi ànd ñëpp ànd si te mm. mooy logique mooy nekk balaa ngay dem jëndi petit pot yooyu nga xam ne ne cher na xamoo date de conservation bi xamoo yan euh, lan lañ si dugal lan lañ ko defaree ak tamit euh, yu paramètres yu bëri nga dem defaral ko sa bopp. Mm-hmm. et c'est là que je me suis dit ah il faut que ma jéem a def benn euh, sujet boo xam ne dañ koy jëmale ci lekku xale à partir de six mois. Mm-hmm. parce que c'est des six mois ngay introduire yenn légumes yi yenn fruits yi ak li nga xam ne moom moo di ndawal gi ndawal gi donc jën ak ginaar. Mm-hmm. donc xam naa ne élément bi dafa gaaw donc dama si ñëw rapidement oui donc à partir de 7 mois 6 mois et plus dañu né mën nga def poire ak framboise framboise il y boo di fa gis fruit jaay di euh, nga mixeur à partir de 15 francs nga am sa mixeur économisé mhm. mën nga courgette mhm. ak euh, petit pois ak pomme de terre nga mixé ko mhm. mën nga jël banane ak pomme ak flocon d'avoine flocon d'avoine vous amulé mën nga jël euh, wala nga jël ou wala lenen da après nga mixé ko alors à partir de 9 mois et plus da jël pomme de terre bolé ko ak haricot bolé ko ak ginar manam moy euh, ndawalu ginar gi. Mhm. dang koy jël euh, après nga émietté ko dal di ko euh, mixer d'accord def ci ndox wala mew mhm. pour mu xaw a liquide tuuti. d'accord wala nga jël pomme plus carotte plus mango. bu démé ba am 11 mois et plus da ngay jël li nga xamné modi moo épinard épinard bo démé tougal nga bëgg togg ci bu weex amo bëgg épinard ngay jël donc mën nga ko remplacer ak bisaab bobu mhm. ak petit pois mën nga jël tamit poire nga bolé ko ak kiwi kiwi def ci ndox wala euh, meew wala nga jël patate douce nga mën ko remplacer également par euh, pomme de terre boole ko ak haricot blanc nga mën ko remplacer également ak ñebbe nga def ci carotte après nga def ci ndox wala meew mhm. donc euh, li mooy recette yi vidéo bi mhm. kon yaa xam nga gis ne que ni yomb parce que léegi carotte machallah ci dëkk bi ak yeneen ak yeneen yi ma fi lim mhm. waxuma la nga jël def ci naax da ngay def ah, dans la journée voilà dans la journée la koy lekk bu subaa nga def beneen sinon mën nga ko denc au au réfrigérateur euh, trois jours bu dee na nga ko congeler un mois maximum mais loolu c'est pas préférable loo xam ne mm-hmm. nga ko def tous les jours mm-hmm. yaa xam euh, en matière d'aliments pour les enfants dañu ne da ngay tànn ay fruits et légumes yoo xam c'est bio mm-hmm. bio mooy euh, fruits et légumes yo xamné amul engrais wala amul ay produits chimiques yo xamné moy tax n'ga sen sen tax gëna a gaaw nga raxas ko ba mu set tamit bu fekkee ne légumes yi ñu ne taamu nañ ci mu ñor ñor bi nag liñ ci gën a taamu wax ñu ñu nga baxal ko ba mu seey mais nga euh, togg ko à la vapeur. sànni ci tuuti xorom. Euh, non loolu dinaa si ñëw mooy doon le dernier conseil donc mun naa ci ñëw vu que laal nga ko euh, lekku xale taamu ci suukar ko mbaa xorom ko. taamuwuñ ko ci parce que légumes yi ñu am seen sucre naturel dañu am tam seen xorom naturel taamuwuñ ko ci daal mm. kon daal naroon nekk le euh, dernier suñu culture bi nga xamantene bi ñun yoy lañu tam tàmm saf donc non euh, non lolu mom c'est pas conseillé il faut pas ñuy xorom mbala ñuy suukar dafa naturel dal d'accord xam nga tay ji ñun lu ñuy bi buñ la né am na sucre, doo ko gëm am na mm. sucre. Mm-hmm. donc il faut aller vers le naturel mm-hmm. le plus possible nga dem vers le naturel euh, légui nak pour nga introduire li nga xamné modi yap jeun ak nen dañu né na nga commencer par les viandes yi nga xamné c'est pas des viandes rouges dañ nek des viandes hmm. blanches viande blanche yoy mooy lan mooy viande de veau mom moy dinde moy mooy euh bu fekkee ne nag yàpp bi wala jën bi ya xam dañu né ben yoon par semaine doyna bi par semaine. d'accord doy na soit nga def euh, jën bi par semaine. wala yàpp bi benn yoon par semaine nen bi par semaine. les légumes quoi. voilà mais nen bi. d'accord dañu bu nga mois. lii dama parce que man mii sax xaw ma mhm. bu fekkee mois la xale bi nen bi. un quart bi nga koy jox. diviser en quatre. voilà nga jël bi. douze mois la mhm. un tiers en trois bi bu douze à dix mois la moitié bu fekkee ne nag am na 18 à 24 mois mun nga ko jox nenum lëmm

damay vais ak yow ci li nga xamante mixeur. Mhm. parce que c'est vrai que nous avons ñoo possibilité am mhm. mixeur. effectivement maintenant comment on peut faire pour yooyu nga wax dit, nous defar comme ba mu que comme mhm. si dañu amoon mixeur alors euh, fourchette bi mën na ne nga bati ko comme nous ñu ko daan tout tucc tuccal ko bati ko mhm. euh, sinon aussi les amener fouet madame qui vous wu bobo boobu moom ngay mhm. fouette fouetté c'est la même chose donc vous bu que ay légumes le bu fekkee ne sa gagne bi set na su la neexee nga coach ko ci yooyu euh, c'est des c'est des c'est des solutions très bien est-ce que est-ce que amener température une ñu ci pour xale ou pas non xale mom beaucoup de jox mom jox ko loo xam ne sa ça yaram bi mom la nangu donc il faut pas lui donner des aliments trop chaud ou trop froid c'est pas bon donc ñaari ñaari conseil que je doon donne, yaa xam mooy dès dee koy tamal, muy aux heures de repas donc cela veut dire que dans nga koy il euh, nga koy jàngal mu bañ di grignoter am na mag ya grignoter rek la def duñu donc du coup duñu am alimentation bu normale et enfin le dernier conseil qui est très important éviter de sucrer ou de saler les, les, les repas des enfants donc pas de xorom pas de sucre euh, pour les repas des enfants. Euh, très bien defe naa ne loolu leer na maman damay ñëw nag ci lu nga xamante euh, parce que mhm. waru moon sax dem ci maman dama doon dem ci mhm. Maïmouna mais ñu ñu jiital ci ci maman parce que mhm. chaque fois man damay xalaat toujours label 221. parce que am na tamit ay façon mu togg yu nga xamante ne bii suñ ko defalee suñu njaboot yi. defe naa ne loolu tamit dafay baax am nañ fi mm-hmm. ñebbe mm-hmm. am nañ fi ay ay laaxu naka lañ koy waxee maam laaxu bisaab laaxu bisaab <laughs> am nañ fi ay ay façon mbaxal yoo xamante ne mm-hmm. bi boo ko defee bu mu nooy mën nga koo jox xale bi keccax bi ñu am ñun tamit baax na mama foofu nga ñëw sax dafa am solo ndax comme li nga wax ci mixeur bi moo nekk aussi tamit ci yenn fruits yi parce que nekkul tamit à la portée de tout le monde ñëpp mënuñu koo jënd ndax yenn saa yi njëg gi dafay xaw a euh, cher tuuti mais ci kaw loolu noonu ma bëggoon a laajte koddu ndax am euh, ñi nga xamante ni boo amee yenn légumes yooyu ngay wax au lieu nga koy bex di ko toggal xale bi mën nga ko boole ci ñulugu añ bi mhm. toggal ko ko est-ce que loolu dina baax si moom parce que loolu dama doon gis maam yi di ko def lu bëri te man mii noonu laay def donc ba bëgg a xam diggante boobu ak bi nga wax ban moo ci gën ci xale bi ñaareel ba xale yi dañu xaw a bëri caprice bëri lu ñuy bañ suñu bañee benn affaire ban technique nga war a def ba ñu forcer leen <laughs> xale yi dañu bëri bañ yenn saa ngis xale boo xam ne du lekk yàpp wala koo xam ne bëggul ginaar boo ko kiiwee et surtout les légumes waa kay naka nga war a def euh, alors bu njëkk bi moy walu togalé ko ci ci ci njël mhm. parce que aussi il faut muy tam gu gu li ñuy togg mhm. donc euh, il est préférable nga bañ ko def bala ngay def nokos bi parce que nokos bi day am kani pobar laaj et tout mhm. donc euh, man sama yaay infirmière la ya xam dama naan gis temps bu mu nekk xale sama rakk yi dañ naan def bala bu ñu toggee balaa ñuy def nokos bi ñu tibb ci si ñeex mi jël nga bu ceeb def ko si ba mu xam day nekk ceeb bu tooy. Mhm. ceeb bu tooy boobu lañ doon jox xale yi. Mhm. donc euh, pour rejoindre li nga wax loolu dafa am solo tamit xale bi tàmm guu bi. Mhm. guu guuwu terroiram. loolu c'est très important maintenant pour bañ bi. bañ bi ça dépend de l'âge de l'enfant mais xam naa ne bu nekkee ne xale yi man ba may nekk xale soo dara dañ boko ko midi dañ la koy jox reer nga bañ ko reer ñu jox la ko ndéki nga bañ ko di ko lek par force et donc le le le le problème est réglé mais les bébés effectivement da nga leen di jox ñu ñu génné ko ci meñ bi <laughs> donc euh, il faut essayer de trouver des astuces il y a des enfants yo xamné ñom tamit euh, l'enfant dafa am personnalité am lu muy bëgg ak lu muy bañ <laughs> peut-être il faut essayer de d'y aller doucement <laughs> doucement té lool tam likoy indi ya xam lu ci bëri moy diko jox chaque jour la même chose exactement il faut varier il faut éviter il faut varier alors le monde dafa am importance Karine il faut varier mm. mais dañu wara xam xam gis nga euh, xale yu démb yi ak yu tey <laughs> <laughs> attention bari caractère attention <laughs> bokkul man de benn astuce laa amoon hmm. bu ma bu may jox xale yi loo xamante ni bon bu ma koy jox première fois day lank mais bu ma demee ba xam xam nga sa doom da nga koy jàng hmm. bu ma demee ba xam li mu gën a bëgg damay defar loolu li mu gën a bëgg indil ko ko ci bool mu gis ko hmm. moom si xelam ak si ay bëtam loolu lay lekk mais li ma ko bëgg a jox am ay vitamine te bëgg ko mi ngi ma denc sama ginnaaw d'accord voilà parce que des fois Khalid aussi euh, gis gëm mhm. donc su je ko ben, kii <laughs> voilà Je li si et il ne fait pas la différence en mhm. général mhm. Beaucoup deux première deux dina mais Mhm. d'accord parce que mon li mu gis la foog mon lay mhm. et puis rapprocher ça le goût bi. nga mhm. euh, le plus possible. ci li mu absolument peut-être que des fois comme ni ngay wax tamit moi je pense que ça joue. Buñ len di dafaral lekk dañuy def xorom ak peut-être que xorom bi aussi c'est trop pour leur bouche. c'est trop pour leur goût. ak acide ak tamit ki ou acide. exactement je pense que ça aussi ça joue. des fois nga jox xalé du ko mëna supporter mu génné ko nga fogné ne bëggul lu muy alors que goût bi le supporter wu. donc ça c'est un bon

di di dugub maanaam lépp loo xam ne pepp la blé. Mhm. te ñun fii ñu ngi koy bay am nañ ko. Mhm. Euh, nek na ay céréales yo xamantene mhm. amna apport yu am solo yu muy indi ci xalé mhm. euh bo démé ci art culinaire bi ba tay yang kay wax wañu mam bi bari na yit ay togg itni bu nek mhm. amna ay togg yo xamantene euh, boko défé euh dana la yombal yu bari wa ba paré présentation bi ci xalé yi wa da ngay mengo ak ñom pour defaleen ko budé ay pat bo defaree pat yi ba paré xawa jël ketchup bi xaw ko defar <laughs> dessiné ay <laughs> dessiné wa ils sont curieux de voir wa comme li Karine doon waaw li Karine don wax sank rek danaka légui mom mun wax ne xale amatul sax parce que ñun ñoo leen jàppee ay xale mais ñoom duñu ay xale de ñooñu gën a xam donc euh, juste pour terminer sujet bi nga xam ne maman ko indi na ko mhm. euh, ça tombe vraiment à pic parce que dafa dañu nekk ci instant boo xamante ne de plus en plus nit ñi ñu ngi gën a bàyyi xel ci santé communautaire mhm. actualité ci bi semaine bi nii rek amoon na ndaje bu mag Dakar fii boo xamante ne euh, ci loolu la woon wàllu santé communautaire mhm. li nga xam ne mooy centre de récupération nutritionnelle yi tamit ñu ngi koy gën a multiplier mooy bërëb yi nga xam ne dañu dem invité fa yaay yi ñu ñëw ñu won leen nu ñu mm. toggee surtout xale yi nga xam ne dañu amee malnutrition alors si biir loolu dañuy gërëm ñu ñuy wooyee les mm-hmm. Mm-hmm. parce que loolu am na ci quartier yu bëri ñoo ngi jàppale yaay yi mm-hmm. parce que dañ leen di woo xawmatuma ban jour la ñu yegg si ci ñoom ñu defar ay togg won leen nuñ koy defaree servir ko xale yi ñoom itamit mën naam ñi ngi seetaan tam tam ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax ci jàppale yi ñuy jàppale population yi euh, madame Cissé <laughs> <laughs> waaw yu oh, mag yi mën nañ ko lekk dafa am ay mag yoo xam ne yaa xam mhm. bu ñu yoree euh, may fàttali ne verre yooyu petit pot yooyu dañ koy jaay mhm. donc euh, c'est am na verre bi nag moom la ñu gën a conseillé mhm. am ñoo xam ne bu ñu la joxee bu ñu joxee xale bi benn kuddu jël ñaari kuddu <laughs> <laughs> loolu faaleen yee kay def wala jaañeen yi donc du coup daanaka bu dee potu yople wala petit euh, petit pot bi ñoom ñoo lekk la moitié Karim faut pas faire ça donte mag mën na ko lekk mais franchement c'est pour les enfants donc boo paree jox leen ko en tout cas daal la nga ñu indi ñu madame Cissé euh, vraiment euh, baax na ci ñun ak ci ñi nga xam ne ñi sétane parce que nak euh, la nga ci ñambas muy xorom seeg suukar si. Mm-hmm. ñu éviter ko ak xalé yi mixeur ku ko amul comme ni ko waxé kuddu amna vraiment fourchette amna ñu gorgorlu ci jël un peu de temps pour faire à manger à nos enfants parce que loolu tamit c'est important allaitement bi amna fo foo bi dafa war yem légui nak alimentation bi jël le relais mm-hmm. en tout cas ñi ngi lay gërëm c'est toujours un plaisir de le recevoir fii si plateau Tam Tam mbokk nu xuus nak ñëw ak yéen

que di def anesthésie générale amana anesthésie générale tay tam maîtriser nañ ko no xamni ne na def lepp waye dal parfois def euh, pikiir bobu si ginnaw moy gën yom yomb bi nak buñ la né dañ lay pikiir si ginnaw mom xam nga nit lodul gis day xaw metti psychologiquement mais weñ bi ñuy defee pikiir boobu moo gën sew pikiir yi ñu leen defar si loxo pour jël deret en général donc yëg-yëg bi. ah moo gën a tuuti waaye nag xel mi parfois moo ko dul nangu ndax dangay ngay wane gannaaw waa ji nekk sa gannaaw ne da lay pikiir mais ngeen jàpp ne technique bu simple la boo xam ni ñëpp anesthésie yëpp mën nañ ko def en général du am problème et wax dëgg yàlla dafa am na euh, confort bu muy indi ci malaat bi ndax nañ la opérer doo nelaw yeewu bi day gën a simple ba pare sax li mën nga ci yokk ne am na tey yoo xam ne dañ ko ci yokk dina tax bu la opéré ba paré mettit bi day gëna a par rapport ak bu défé anesthésie générale consommation garab yi ngay am bu la defalee anesthésie générale doo ko am si bu la defalee raché anesthésie buñ ci si yenn garab yi donc anesthésie bu wóor la technique bi yomb na aussi si ku ko jang et complication yi bari wul donc jarul ragal parce que léeg-léeg ñu gis malade ñu ne ko dañuy pikki si ginnaaw mu ne ah araam ne kuy naan colifidrine <laughs> waye <laughs> da ngay da ngay xam ni pikiir boobu moo gën li ci ëpp sax mooy gën simple pikiir bi ñu lay defal perfusion bi wa ndax léeg perfusion mom dina nit ki am na ñoo xam amuñu veine yu wër dina metti méttiwaay boo xam ne pikiir la si ginnaaw sax muy gën a mais dal dama bëggoon wax ni technique d'anesthésie bu simple la bo xamni bari wul complication et vraiment amna confort pour man si malade bi si bir opération bi ak après opération parce que defe naa ni opérer amna solo yëguloo waye li ëpp solo li gën yag moy après opération bi donc itam sóoraale ko je pense que loolu lu am njëriñ la jërëjëf

yaa xam ne wane nga sa bopp fi mu ne nii yaa xam ñu ne piqûre rek nga teg fa sa baaraam bañ fa jógee <laughs> c'est c'est vrai que piqûre des fois day nekk loo xam ne da ngay tiit surtout ñu lay piqûre foo xam ne mënoo ko gis parce que des fois tu te dis que piqûre bi suy ñëw sax nga koy xool nii ba bañ la koy jam ça diminue <laughs> peut-être la douleur mais c'est psychologique comme ni mu ko waxee loolu ci xel la rek euh, lan moo tax en fait ma ma def benn série ci sujet anesthésie c'est à la base de beaucoup de traitements euh, à la base de amna na yu bëri yo xamanteni ni il faut nga jaar ci anesthésie pour ñu mëna la faj te ñu bëri dañu ragal anesthésie lool motax ma ci ñëwaat euh, côté bu nek ma wax ci rachi anesthésie nak euh li ma ci gëna wax moy côté césarienne parce que euh, et puis l'eau lo nous, nous ngay gëna mëna il faut sax expliquer donc dafa compléter man vais vous ci am petite am ci expérience mm-hmm. effectivement euh, buñ la piqûre bi piqûre bi c'est-à-dire c'est une petite piqûre que tu sens et puis c'est tout c'est juste la piqûre que tu sens juste la piqûre mm-hmm. et au fur et à mesure nga senti. bon voilà laisse tant par exemple tu ne sens pas

césarienne qui souffre du bi la pour mun a génnee d'accord Waouh, désolé pour les mots crus. <laughs> mais il faut non non non mais c'est normal parce que. voilà je veux dire ñi par exemple comme man xaw ma césarienne. césarienne voilà euh, c'est ça c'est ça mais auparavant je reviens sur le fait que euh, césarienne que ce n'importe quelle euh, chirurgie. Euh, luñ lay munti defal dinañ la defal consultation. bo xamné ne dinañ xool bilan préopératoire. voilà dinañ xol sa tension xol sa groupe sanguin dinañ xol lan nga lan nga. Euh, nu koy allergique e-, exactement lolu yëpp c'est pas un problème donc motax ñu ne tout le temps il faut que ñuy dem chez les professionnels. Mhm. ñu mëna euh, def genre chirurgie genre anesthésie bi ñuy wax tay donc comment ça se passe bilan bobu su paré bo ñëwee ñu programmer la dafa am ay garab yo xamna dañ la koy jox. Mhm. nga commencé ko naan avant. Mhm. soo ñëwee dugg bloc euh, ñu dafal le piqûre bi et puis ñom ils commencent aussitôt entre yo boo tëddee dafa am benn rideau bu ñuy tek fi oui évidemment ci ah ci sa suufu bi. parce que mënuloo gis mën na la traumatiser. mënuloo gis ñom lu ñuy def voilà. mais comme nu mu waxé tu sens tout euh, en tout cas ci kaw yaa ngi wax yaa ngi xool yaa ngi dégg donc c'est vraiment pas compliqué doo yëg benn une yow tu sens que ça yaram ñu ngi koy yëngal mais amulo ben métit bo de yek yëg te comme ni ko ko euh anes par rapport ak anesthésie générale bi rachi anesthésie bi mo gëna neex euh enfin du conséquence mais après après les l'acte que ce soit euh, bu fekkee anesthésie générale après di nga yeewu après dinañ la jox ay garab bu fekkente tamit euh, rachi anesthésie après il faut que ñu jox la ay garab pour que anesthésie bi dañ euh, même su il y a des calculs qui sont faits. oui mais rachi anesthésie mo gën anesthésie générale si si ça peut le permettre mhm. léegi nag li ma bëgg a wax rek mooy te euh, bon ci biir recherche yi ak ak waxtaan docteur Diop laa koy xam il faut rachi anesthésie duñ ko defal koo xamante ni opération am dafa laaj euh, ñu teg ko ci table opération bi plus de trois heures de temps jusqu'à trois heures de temps mën mais beaucoup on naree weesu day def euh, anesthésie générale mais rachi anesthésie loolu la ci souffre, rek la ñuy euh, génné xalé bi euh, et tout ça Nous mu gëna a éviter les problèmes ñu ñëwaat ko yow en fait après fi ñu ñëw rek ngay dem di faj tous les jours jusqu'à jusqu'à cinq jours une semaine après c'est tous les deux jours té day gaaw très bien alors alors May euh, gis nga nak li tax lég lég dañuy interpréter lo xamné ne ñun suñu bop xamnu ci dara <laughs> parce que so waxee ñu Une anesthésie gis nga piqûre bañ lay défal gis nga bo paré da ngay am ay problème mu digg <laughs> et les bon les conséquences de toutes les façons Nous nous niroowul pour chaque personne mhm. mais en tout cas ñu am ci ay leeral yu nga xamantene bi sa su dama koy wax ci émission tam-tam ñu ngi jang lu bari mm-hmm. j'espère que ñi nga xam ne yéen ñii seetaan yéen tamit yéen ngi ci jëlé ay xam-xam mm-hmm. ñu jëlé ko nak ci vraiment ay médecins mm-hmm. waaw en fait euh, comme ni nga ko waxee dañu leerlu sa su ne te dañuy jàng loolu tax tay euh, question sax la gëna am que suggestion <laughs> euh, par rapport ak tur bi rachis anesthésie est-ce que c'est la même chose que anesthésie locale on sait que anesthésie mën nañ ko considérer comme une anesthésie locale mais le fait que ñu woowee ko rachis rachi rachis anesthésie bi ak est-ce que côté boobu kese la. alors am terme termes médicaux yoo xam peut-être que duma ko fàttaliku. Mhm. mais euh, si si c'est un terme ñoom am na tur organe yo femme dafa am rachis. Hmm. alors beaucoup ak anesthésie locale. anesthésie locale par exemple bu ñu opérer sa loxo bi. sa loxo anesthésie anesthésier. tout à fait anesthésie locale. voilà mhm. euh, rachis anesthésie. Mhm. Euh, am na nu lu tudd xaw ma naka. rachidien waaw <laughs> rachidien boobu noonu. c'est lié à ça parce que voilà exactement bu piqûre en fait dañu lay piqûre. si colonne si si mhm. euh, moelle bi nekk autour de la colonne vertébrale. foofu la ñuy dugal euh, liquide bi. Mhm. en fait te foofu fi ñu piqûre à partir de foofu la mhm. anesthésie bi di am ba ci suuf. donc yo ça anesthésie bi ndigg bi ci la bokk. biir bi ci la bokk. tànk yi ci la bokk donc nekkatul local. local ben membre lay jël. très bien voilà defe naa euh, vous avez des questions par rapport euh, à ak. moi je voudrais juste savoir est-ce que uniquement pour césarienne nag lañ koy def. peut-être qu'il y a euh, d'autres par exemple bu qu'elle est pour opération ou, Euh, euh, comment on appelle ça, hémorroïdes ou mm -hmm. est-ce que d'une ko aussi wala est-ce que uniquement pour césarienne lañ en fait le plus loo xamante ni soxla na comme nous mu ko waxee ci suufu jumbax bi ba ci mhm. suuf mm. mun la defal rachi par contre il faut savoir que dafa neuro ak péridurale Mhm. péridurale euh, c'est-à-dire rachi anesthésie moo gën a sori fi ñu koy dugal que péridurale mm. péridurale soriwul piqûre bi day jege. alors que raché anesthésie daf mo gëna xoot mm-hmm. parce que justement daf lay permettre nga def ay opération mm-hmm. ay chirurgie mm-hmm. ak anesthésie bobu donc lepp lo xamanteni mën nañ ko euh, opérer ci souf mën nañ la defal raché anesthésie donc ñu ñëw tuuti nak rapidement péridurale moy loolu nga xamanteni bi dafa lay <laughs> permettre accouchement bi dal euh, douleur sans douleur. voilà voilà loolu la. <laughs> loolu mooy péridurale dinañ ci ñëwaat parce que xam ay ay ay xalé ngeen. te yooyu da ngeen koy jëfandikoo ñun nag yëpp maam yi daan def rek lañ doon def. <laughs> dinañ ci ñëwaat euh, ah ci ñu ñëpp maam daan def rek lañ doon def. bu fi indi ah, débat yaa non non le débat reviendra parce que péridural bi dinañ ko indi waat. non yaa la bu fi indi débat. Mhm. parce que dafa am débat entre les césarisés les non césarisés parce que y a des gens qui pensent nee nañ accouchement mooy normal boo booy accouchement yëpp accouchement la. yëpp accouchement la parce que même buñ la rafalee raché anesthésie nga def césarienne après day métti. ah oui yëpp suy dañ da ngay yëg métti. en tout cas dañ la xool dañ ubbi sa yaram. Karim ñëwaat ko. Karim donc en tout cas man waxuma dara. <laughs> dama lay daal lii am na. allah ba am na ya def hmm. la ñuy def ba léegi ah, ya def <laughs> ah, aayul ba léegi <laughs> en tout cas ñu di gërëm bu baax a di kontaan parce que nag euh, gis ngeen lii la ñu bëgg mu am ci biir kër yi ñëpp kontaan ñëpp RTS 2 encore plus proche de vous ñu ñëw label 221 si dund ñu ne dañuy ñëw ci mbirum der waaye nag euh, am na façon yi façon yi façon yi yëf yi nga xamante ne bii dañu koy defaree ak der mbokk yi ñu ciy xuus nag ak may dañu dem xool yi dellu si waat doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te du mu néew. ñun ba ñuy commencé depuis le bas âge dañaa dañaa dañaa opté woon li nga xamanteni ni mooy euh, consommation locale quoi li nga xamanteni fi lañ ko defee si dëkk bi ñu dañ koy bugg di promouvoir loolu moo tax ñu dugg si sax parce que ba ñu jàngee ba pare li ñu xalaat mooy entreprendre ñu léegi pourquoi pas ñu jéem a xool li nga xamante ni c'est c'est fait ici dans le dans dans le pays ñu jëm ko promouvoir loolu moo ñu tax moo tax ñu dugg si mbir mi bañ ko dugg tam ñu xool nag secteur ban moo gën a nekk pour ñu secteur bu prometteur mooy secteur lii bi filière cuir yi si noonu commencé defar dal yi bon di ko exposé di si jéem def daal maam am jéem see liggéey boo xool daal lu mun joxe. te néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën ti am jamono liggéey jamono nekk liggéey war na góor sunu force si daal di jigéen mun lay wax ne dañ lay assurer qualité bi abord parce que dèjà dañu ko defar defar boo xamante ni ah, boo koy utiliser di nga xam ne lii nii macha allah dina dëgër dina yàgg dañ koy sol ay at def dara te daal daal jigéen ñi comme ni nga ko comme ni nga ko gisee rek dañ si defar ay niipe yoo xam ne dafa nekk à la mode parce que aussi ñun tamit am nañ ay xel am nañ suñu source d' inspiration di xelaat di xool ñu moo defee ba affaire bi comme ni nga xamante ni dañu ko def ba jigéen ñi mun see gis seen bopp loolu daal xam naa ne moom qualité bi moom. mom c'est garantie mom wax dugg fi la am réputation de qualité bu baax baax. liggéey war na go war na ki ki foo war a tekki tekki woo fa doy na waar. des fois day am des fois da ngay soxla cure bu ngay soxla. parce que n'importe quel kiwé rek ngay jël pour defar rek parce que comme client yi xam ba min euh qualité bi do dem jël yenn kiwé du ko defar il faut nga xaar Euh, matière première bu ñëw te comme dañ koy euh, dañ koy importer bon munoo lu dul xaar bu ko bu ko gars yi indee nga jël li nga xamante ni mooy mooy mooy li si gën a baax ak yi yi nga xamante ne mu defar design yu rafet yi daal di ko jël des fois dañu am ay problème matière première la moom moom dëgg lañ koy am souvent. jërë nga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe. waaw c'est vrai que nag euh, Youssou way na ko nee na teraanga doomu aadama liggéey koy joxee te wax dëgg yàlla fii ci Sénégal euh, ku ne euh, ca secteur ba ngay yëngu mm-hmm. yaa ngi ci bay sa waar bi yoon nag tey ñu fësal li nga xamante ne bi mm-hmm. mooy liggéey bi ci wàllu der mm-hmm. ak lu bëri li nga xamante ne bi ñoo ngi ko fi def waaw liñ ci mën a def yaa xam bari na parce que sànq maa ngi koy junj maa ngi wax naan indi nañ fi woon filière cuir parce que ku wax cuir sa xel dem ci ngaay ngaay bi nga xamante ne c'est la ville maanaam de la ville du

xalé yi ñu ngi gëna gëm entrepreneuriat bi. oui. Ah entrepreneuriat ah dafa xew. wante ñom gëm nañ ko. té ñu ngi ciy taxaw bu baaxa baax. parce que bo gisé ci élément bi ki nga xamné moy gérant bi néna mom moom na ba paré ba am bakam def étude supérieure am ba am diplôme am ak yépp mm-hmm. mais munu won fexé ba inséré wu. Mm-hmm. mune mom du tok day def comme ni ñëpp. si la xalaat dem taxawal nak lo xamantene da fay liggéey en collaboration ak artisans yi. lool nak xam da fay rejoindre madame Cissé li ñuy nane chaîne de valeur. Mhm. parce que boo na mënoon na def liggéey bi mom kese. mais bo gisee mu dugal ci ñeneen ne attends man comme man marketing laa jàng. Mhm. Euh, ak commerce. Mhm. Na dem ma xol artisan yi nga xam ne ñom sen liggéey mën nañ ko. bokk na xarañ na. ma waxtaan ak ñom suma ma ak ñom bu ko defee ñu mëna a liggéey bo xamantene amana ñu mom dina si jëriñu ñom itam dinañ si jëriñu ba paré ku nekk di nga def euh, sa passion. maanaam di nga ko mën a dund ba pare wéyale ko voilà loolu daal ci angle boobu noonu lañ ko jëlee mm-hmm. euh, wane euh, dàll yi ak sac yi ak euh, ceinture yi nga xam ne waa seen cuir ñu ngi koy defar très bien alors Karine mm-hmm. defe naa ne yow sax di nga ci war a mën a gis sa bopp mm-hmm. parce que defe naa ne léegi jeune boo gis lii may wax dama koy dëggal parce que j'en reçois beaucoup ci émission Tam Tam ñoo xamante ne bi ñi ngi jéem a créer ñi ngi jéem a taxawal dara jéem a di ko gën a yaatal di ko gën a defar ci liggéey yu nga xamante ne bi vraiment secteur yëpp ñi ngi dañuy def tout parce que nag wax deug yalla deuk buñ ko bëggé développer <laughs> faaw nak euh, mhm. entreprise yi ndaw secteur informel bi mhm. waaw kañ. waaw moo ko yor. Euh, Maimouna li limu wax c'est tellement important c'est-à-dire que kii dafa jang am ay diplôme am dem defi artisanat. parce que ñu bëri dañuy fogné artisanat dafa nek lo xamanteni plan B la bu féké da nga am échec. Mhm. justement man je pense que ça valorise l'artisanat. Ah il faut que nous xam que euh, si suñu développement le bok c'est pas parce que lo jang wala lo lire que voilà lo choix da ngay dem def artisanat non parce qu'effectivement, effectivement artisanat day am marketing. Mhm. day am tu il faut que que tu sois un bon commercial. Mhm. il faut que tu sois un bon manager. ñom ñi ngi def sax marketing te duñ ko mhm. artisan def marketing duñ ko exactement mais bo boo amee diplôme bi sax di nga gëna xam utiliser. Euh, lolu marketing beeg yoy naka nga koy utiliser c'est ci artisanat bi mhm. comme je disais la dernière fois des fois dafa femmes, ñoo xam des dañuy defar lu rafet defar lu baax mhm. mais duñu communiquer wala xamuñu naka lañuy communiquer <laughs> mhm. bah justement c'est c'est l'occasion et je pense que ça il faudrait même mun a fait def mais euh, peut-être djema a justement ñi nga xamante ni dañu jang mhm. am ay diplôme di def artisanat. Mhm. peut-être ñu djema euh, euh encadrer. ñi nga xamante ni jànguñu ko. Mhm. te ci ça ce serait une bonne chose. alors madame Cissé euh, gis nga nak li ñu may mun a indil ñuy fàttali vraiment village. artisanal waaye nañ fay dem waay. <laughs> Mm-hmm. <laughs> man de dama yu <laughs> yi mel nii. Mm-hmm. ñoo ngi fa ak mm-hmm. yeneen ak yeneen yu nga xam ne sénégalais ñu ngi koy defar. ak seeni loxo mu rafet mun ñoo jëriñ. walla yaa xam boo voyagé. Euh, nga laajte mbir dañ na naan this is handmade. Mm-hmm. xam nga wala ñu ne la fait fait à la main mm-hmm. mooy gën a cher parce que dañ ko jox valeur mm-hmm. sénégalais dama yàgg wax ne xamuñu valeur euh, fait main euh, am na ay maire yoo xam ne ni ñi ngi marché HLM di jaay yoo ñuy ràbb bande bi 1000 euh, francs lay jar ma boole ko ak bazin riche chaque fois dañ ma koy laaj man leen marché HLM laa ko jëndee parce que xamuñu lan mooy fait main te tey jii boo gisee jàng bi man lu tax man point bi ma ci gis dama gis ne ñi jàng investir le le le milieu informel dañoo gis lépp lu ci doon faille mhm. ñu teg faille yi de côté mhm. le principal problème moo nekkoon wàllu finition waaw ñëpp loolu lañ doon ñu daan ko jënd finition lañ doon wax te li ma gis nii am na finition mm-hmm. aussi bien ci meubles yi dàll yi ceinture yi accessoires mm-hmm. maintenant dañuy bàyyi xel bu baax ci très bien alors alors maman li li code wax defe naa ne euh, laa lay joxaat kàddu gi parce que euh, bu njëkkaan dañuy ragal li nga xamante ne moom mooy finition bi mm-hmm. waaye tellement ñoom dañu ko comprendre que léegi même sànq ñu ngi wax waxu marketing ñu ci bëri léegi vente en ligne la ñuy def di jaay aussi bien au Sénégal di jaay à l'étranger di jaay un peu partout ba pare nag li ma ci gën a neex mooy entrepreneur yu bëri léegi du ñuy livrer mu gën a yomb. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. lépp ay technique la rek gis nga fi mu toll nii xam nga boo xalaatee benn affaire sottiwul da ngay xalaat leneen. Mm-hmm. il faut que ñuy trouver ay solution naka la ñuy def pour ñu mën ci génn donc kenn ku nekk wàll bi nga jàpp ne boo ci taxawee dina dem rek ci foofu la ñuy mën a demee mais man damay ñëw ci matière bi nga xamante ne moom la ñuy utiliser. muy cuir bi parce que da ngay gis ñu bëri dañuy am ay problème mu tànk seen tànk yi dafay bul. di di di di di di ñaq. donc am na yeneen matière yoo xam ne buñ ko solee ci seen tànk yi mën na indi.

si sa dëkk mhm. yooyu noonu alors que moom dafa am solo parce que defe naa ne euh, âge yëpp ñoom ñi ngi defar daal yu toll noonu waaye nag ñu terminer may mhm. parce que sànq mu ngi koy jundu léeg-léeg ñu am problème mu matière première waaw dañuy am problème matière première te maman mu ngi ko doon wax léegi muy cuir bi te nee na loolu daf leen di handicapé bu baax parce que te boo xoolee sax jafe-jafe bi en fait euh, y'a xam xam nga lan la mooy ne fii naam dinañ fi am cuir mais cuir bi bu ñu ko jotee noonu brut fii Sénégal duñ ko mën a utiliser parce que amuñu industrie amuñu tannerie mhm. amuñu benn bërëb liggéeykaay boo bo xamantene mën na soppi cuir bi ba ñom ñu mën ko utiliser léegi cuir bi day dem ba tugal ñooñu defar ko sandi mmh. chute yi ñoom mmh. chute yooyu la ñu récupérer ñu delloo si ñu ko ñoom ñu door ko mën a jël utiliser ko pour defar li nga xamante ne mooy article donc euh, pour terminer juste dire que ne euh, euh, sànq maa ngi koy wax dama ko jël ci anglo entrepreneuriat pour ndaw yi xool ki nga xamante ne exemple la ñu topp si moom et je pense que ne nit ñi dégg nañu message bi bu baax a baax xale yi ñu ngi yëngu bu baax mmh. et la preuve xam nga man des fois quand je tourne aussi j'essaie un peu de coller avec l'actualité gis naa ne nga xam ne ñoo jiite réew mi dem nañ sax ba tegal fi lu ñu naan délégation générale pour l' entrepreneuriat rapide muy ci wàllu góor ñi muy ci wàllu jigéen ñi donc mu ngi noonu daal na gars yi gën a góorgóorlu ci la Sénégal te nag am na yoon yu nga xamante ne boo ci na am financement sax dana mën a am euh, en tout cas ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm nag vraiment la première équipe euh, mm-hmm. bi ñëwoon ànd ak ban pour euh, tam tam du samedi may maa ngi lay remercier mm-hmm. plaisir de te retrouver incha allah lundi mm-hmm. pour beneen agriculture waaw pour beneen agriculture ci mois de mars bi mais demee di gi euh, bi euh, lundi invité bo xamantene nam du jigen wanti day liggéey lu bari jëm ci euh, cause jigen ñi. très très bien waaw May merci beaucoup et et surtout très bon week-end. merci à toi Yaxam. merci beaucoup suñu xarit Karine. oui yooyu tamit ñoo ngi lay gërëm di la sant parce que nak suñu mbokk docteur yi sa su ne yaa ngi fay dem di ñu indil ay xam-xam. Mhm. parce que nak lég lég ñu xaw leen ragal waaye nak lan leen fi taxato moy dal gëna défar suñu santé té nak ça n'a pas de prix ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, RTS 2 euh, mm-hmm. mm-hmm. euh, donc comme nous mois de mars mois des hommes donc <laughs> samedi prochain nous ci sujet qui anesthésie mais samedi prochain nous remercier au passage tous les médecins qui ils seront disponibles absolument Karine je me remercie très bien en tout <laughs> cas bien <laughs> merci Karine Nous Kodou euh, euh, Mohamed euh, toujours notre di pour le bien-être de nos enfants oui yaa xam xam nga xalé ñom buñu amé jamm rek dañuy am jamm ak mbékté kon nak euh, y'a xam may jox rek rendez-vous euh, samedi prochain parents yi ak futurs parents yi parce que vous êtes tous concernés. Mhm. pour euh, yenen sujet yo xamné toujours ba pour tout temps qui may remercier nak ki nga xamné mom modi bijoux, c'est Bijou label 221 yo di ci contact naté mom dafa né rek day jël haute couture. Mhm. à la française wala à l'américaine mu sénégaliser ko donc def ko label 221. elle est magnifique donc merci Touti pour cette très belle robe. Mhm. Touti elle est Sacré-Cœur, elle est aux Almadies. Son téléphone, c'est le 77 698 60 98. 77 698 60 98. Merci beaucoup, Touti. Bijoussi. Voilà.

jërëjëf kan ngay remercier tay <laughs> tay ki may remercier moy couple gay bi nga xam mo jall sank mhm. ak ñi nga xam ñom ñoo japp ci euh, sañse bi muy wa esprit chic mhm. Fatou numéro téléphone 77 653 79 26 mom moo ma defal coiffure bi ak euh, make up bi Amina Dieng brom princesse Sophie mom mo jaar ci yéré bi 77 501 80 93

Yokkatar Fatma maa lay nuyu c'est toujours un énorme plaisir de te recevoir. merci yaa xam lay fay Mangi nuyu ñi ma plateau bi ñëpp. Mhm. di nuyu téléspectateur RTS2 yëpp rawatina ni ñi seetaan conseil voté. très bien alors conseil voté, tey ci lan nañu rapidement. Moi, tey nag si cerne la ñuy wax xam nga cerne. Ah. ñëpp a d'accord ñëppay am cerne les blanches. les jaunes les noires tout le monde. d'accord surtout Bo, bo bu fekkee ni nag nelawoo bu baax day gën a génn wante ñëpp ko am. surtout que nag de temps en temps euh, nelaw dafay xaw a jafe tuuti en tout cas mbokk yi ñu topp Fatma dans quelques instants euh, parce que nag la mu ñuy indil ci li nga xamante ne bii moom mooy ay cernes naka la ñuy def ba nëbbu ko mbokk yi ah dinañ ci xam dara en tout cas dañuy content tamit parce que nag euh, vraiment c' est Aïcha Aïcha suñu feggoog moom dañuy content parce que c' est affairage te léeg-léeg doo am temps sax pour xool affairage bi lan moo xew ci àddina bi Aïcha dinañu ko indil tous les week-ends Aïcha c' est un énorme plaisir ba noppi nag. I love your style. Like oh. always. je suis contente, mon corps court. comme d'habitude. <laughs> style I love ah, merci ma chérie. Mhm. je love ton bleu aussi. C'est vrai <laughs> Il est prometteur. <laughs> Ah, c'est joli. C'est c'est joli, c'est frais. Merci maa ngi lay nuyu. di la di la fay. di nuyu téléspectateurs yi. Mhm. di nuyu Fatma. je veux dire le nom de tout le monde. très bien oui très bien di nuyu Malcolm. Uh-huh. ak Khadidi. <laughs> kontaan nañu justement dañuy kontaan aussi saa su ne ak Malcolm parce que nag euh, suñu invité surprise yi dañu ciy kontaan Malcolm ñu ngi lay nuyu euh, xam nga nag yow bokk nga ci ñi nga xamante ne dañ fiy teew si semaine bi tam-tam waaye boo génnee plateau bi rek ñu commencé la nam ñoo ngi lay dalal jàmm yow tamit plaisir bu toll nii di la recevoir. fay bu toll nii <laughs> fay bu toll nii innoma. give me five men. daab daab. alors donc j'en profite pour que harmonie bi ñu nuyoo. Uh-huh. ñii seetaan samedi ñu koy am. Mm-hmm. mais franchement euh, ñu ngi dugg ci weer bu am solo. Mm-hmm. di dugg ci mois bu extraordinaire mu nekk mois d' avril. Mm-hmm. di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi jàpp ci lépp luy sécurité. wax dëgg yàlla dinañ wax ni yegg seeguñ 4 avril mais tam tam moo mm-hmm. émission bi ngeen wara sétane mm-hmm. parce que ñu ngi leen ci waajal lu am am solo donc mm-hmm. j'en profite aussi di nuy ñi nga xamné ñu ngi am problème ñu feebar ak yooyu ak di nuyu sama Valentine très très bien ah. alors mon Valentin est-ce que tu sais que l'année dernière ma ngi ci féliciter encore une fois toutes les équipes de la RTS2 def nañ émission bu am solo and ak marin yi

te man damay contane ci ñi nga xamante ne bii ay ndar-ndar lañu. te nak wax dëgg yalla sama ndar-ndar bi nga xamantene bi dafa nekk ci sama plateau mbokk yi léeg-léeg damay am envie wax ak comme ni muy waxee. waaye yow yaa xam <laughs> waaye yaa xam yow waaye yaa xam yow rafet nga dé yaa xam yow na nga dé ma man de namoon naa la. xaw ma bàyyi retaan bi. alors c'est une façon pour moi de recevoir la grande salésienne. ñu duppee ko Khady Didi Khady Didi saa su ne dañuy dañuy kontaan parce que macha allah waxin bi tey na comme waa Ndar doxin bi tey na comme waa Ndar saa su ne nag muy temp noonu di dem ci bon plan yi nekk ci biir Sénégal euh, dañu lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax a baax suñu ndar-ndar bi. Mm-hmm. <laughs> salaamaaleykum yaa xam <laughs> salaamaaleykum uh-huh. Aïcha Malcolm Fatma uh-huh. yaa xam yow moom xaw ma tey lan laa wax <laughs> mais am nga ma dans l'ordre de toute façon <laughs> maa ngi nuyu téléspectateur u RTS2 yëpp uh-huh. naan leen nam maa ngi leen di indil beneen bon plan bu neex comme yaa xam moom tey daf may toppandoo moom bàyyi ma noppi. non mais c'est très beau. ah attends c'est le mot Aïcha nee na ko c'est euh, tout simplement agréable. <laughs> Khalis euh, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de te recevoir. plaisir merci d'être avec nous Nous nous ñu ñëw ak ci conseil beauté Nous ci ak suñu xarit Fatma Madame dem régie dellu si waat. Fatma euh, tey conseil beauté Nous nañ koo junj tuuti muy surtout ñun jigéen ñi sonal nanu ah. et comme tu tu tu disais ñëpp dañuy am cerne. ñëpp ñëpp am cerne tout le monde surtout boo nelawul bu baax. d' accord nga am cerne. Mhm. des fois mauvaise circulation du sang dina indi cerne. ah mais oui des fois te yenn produit boo koy utiliser di exposé wu si naaj bi ak yooyu. dina indi cerne. ok donc ce qui fait que am na ñaari façon cerne. ñaari mhm. cerne yi nga xamante ni mauvaise circulation sanguine manque indi manam deret bu circuler wul bu baax. ok alimentation bu bonne dina ko def coono dina ko def lu bari mën na ko def mooy indi cernes yi si bët mhm. wala nga am cerne coloré bi nga xamante ni soit naaj bi mun nga diwu karité sax génn si naaj bi mu defar mu indil la cerne coloré ça mhm. dépend. Mhm. d'accord type de peau yi. am na y a des peaux yoo xam ni y a des gens yoo xam ni ils sont fragiles surtout contour bët bi. c'est très fragile. oui oui donc euh, ça dépend donc boo amee cerne euh, dû à la mauvaise circulation du sang. tu peux am na yenn astuce yoo xamante ni mun nga ko utiliser. Euh, aussi aussi bien aussi c'est valable aussi pour les cernes yi nga elles sont colorées donc première astuce bini indi c'est tout simple moy mhm. euh, concombre les jël ni concombre bi mon la jël daggat ko ni en rondelle d'accord c'est ma particularité bi da ngay jël concombre bi def ko ci frigidaire ah bon mu sedd guy nag d'accord mu sedd bu baax bu seddee bu baax nga mhm. tek ko ci cerne yi ok bayiko ko mhm. une mais bi nak jafena bi mo ci gëna efficacité efficace parce que man xam nga man dama cernes yi moom sama bop la ko commencé. d'accord man j'ai toujours des cernes d'ailleurs ça y mo fi ñëwee té maquilleuse bi suma ma rek day yoxu Fatma sa cerne yi. lu tax nelawoo ma ne ko nelaw naa dama ko tam. Mhm. donc euh, concombre yi. mettre boo ko met boo ko ci frigidaire bu mu sedd guy. Mhm. nga teg ko ci sa bët yi. waaw da koy dindi bi mom c'est radical. et et combien de minutes nga ko ci teg. mën nga ko ci bàyyi une dizaine de minutes. d'accord mais da koy yow ci sa bop da ngay sentir ni que. Mhm. Concombres, déjà ça fait dormir ça apaise mhm. Ce oui mhm. tu le sens quand tu les rafraîchis bien que tu les mets sur tes yeux mhm. tu sens vraiment que ça ça soulage les yeux ça aide à la bonne euh, circulation du sang vraiment ça soulage et ça apaise beaucoup très très bien donc donc le concombre pour dal vraiment ay seen vous ko ci frigidaire ba mu sedd guy. nga tek ko ci dix minutes ça règle le problème. ça règle le problème bien. alimentation bi xam il faut qu'on revienne dessus xam nga bay passé ñu ngi don wax ci cellulite. Mhm. mais bu ñu waxee ci cellulite ba dugg ba ci biir spécialiste yi dañu né mauvaise alimentation mun na indi cellulite. Mhm. parce que mooy graisse bi di dajaloo. cerne même chose mauvaise mauvaise alimentation fast food di junk food yi ngeen mhm. baal mhm. tu vois yene lek yu gras et tout ça. il pour une bonne santé dal faut bien il faut bien manger parce que graisse boobu en fait mooy càng donc ça circule pas bien et ici euh, la plupart du temps les surtout amuñu tàmmuñu def sport mhm. amuñu activité yi nga xam ne dañuy yëngatu bu baax donc du deret bi day day toog du du circulent bu baax mhm. donc euh, aussi il faut rappeler que concombre bi mun nga ko mais il nga tamit di ko déjà c'est plein d'eau. kon boko ko kiiwee ba pare. ok déet déet déet déet déet Malcolm déet. déet déet ji baax ñu faram fàcce ko. li ngay teg nii daal boo nga sànni ko. beneen bi gis ko sant Thiam. mbaa saako billahi du taxan da ngeen foog damay kaf. ay c'est Valentine bi cham la sant. Eh, teel a kañ teel a samedi. moo jeex na uh-huh. deux heures de temps. Uh-huh. ñu bind ko ci internet yi. grave grave alerte après avoir suivi tam tam avec ya xam chambe ay et cetera.

Mhm. ça aide c'est pour mhm. tricher. très très bien xam nga lii dafa bëri ndox. Mhm. boo ko lekkee da ngay am sensation de satiété da ngay mel ni ku suur. d' accord fekk donc ça ça aide blocage ok alors euh, euh, defe naa ne man ci sa plateau bi defe naa ne du ay compound rek laa fi gis parce que dafa mel na gis naa ay sachet yu mel na ay sachet thé tamit euh, citron. waaw ak citron bi donc sachet ba léegi maa ngi si cernes yi nga xamante mauvaise circulation du sang moo koy def. ok donc thé bi même chose que concombre bi. dañ koy seddal bu mu sedd guy. d' accord dugal ko si frigidaire bu mu sedd guy. c' est un thé déjà utilisé. oui c' est un thé déjà utilisé. ok tu le en fait il doit déjà d' ailleurs il doit être déjà utilisé. parce qu'il doit être mouillé. d' accord donc moom ngay jël dugal ko si frigidaire bu mu sedd guy. Mhm. teg ko si serre nañu. bi tamit c' est très.

boo jëlee huile d'olive bi nga def si limon. ok limon bi jarul muy bëri même moitié bi rek dina doy mun na saf bu baax. ah mun na saf bu baax limon bi ah mun na saf bu ah? baax limon bi. ok mun na saf bu baax parce que mooy dindi euh, tache bi. ok nga def si limon bi. d'accord mun na saf bu baax mun nga def quantité huile d'olive bi ngay def. nga def ko en citron c'est-à-dire mun nga jël kuddu. waaw une cuillère nga def par exemple deux cuillères d'huile d'olive après tu prends deux cuillères de citron nga def ko si nga jaxase ko boo paree nag nga jël mais Mm-hmm. da ngay jël coton coton disque. waaw coton yi ngay démaquiller coton yi ñuy fajee. waaw yooyu da ngay jël coton. dugal ko ci biir waaw. daal di koy teg. ok ci contour bët yi xam nga seen coloré. d'accord du dañ du comme beneen bi nga xam ne booy dogg yeewu lay génn. wala boo defee effort boo sonnee mu génn non. d'accord bii c'est en permanence sur le visage donc bi boo jëlee coton def ko ci. Mm-hmm. nga teg ko ci contour bët yi nga tëdd nga nelaw. d'accord boo yeewoo nga sulmu waxuma la nag nga def ko génn ci naaj bi waaw. Parce que ça a précisé. Ouais, parce que le citron, tu en mets assez. Tu mets, tu mets, euh, tu mets beaucoup de citron avec l'huile d'olive. Et le citron au soleil, ça va te faire un autre effet. Exactement. Ça va te brûler la Tout peau. Tout à fait, La voilà. Donc, goût nga koy diou mhm. Ce contour beuti nga fanano sur sur peut-être deux semaines, trois semaines, un mois, da nga gis cerné complètement. Très bien. Boy génn si naaj bi da nga def benen produit bo xamni protection solaire lay nek. En tout cas, euh, content contane nañu parce que nak lég lég dañuy am problème yoo xam ne duñu xam fan lañ koy jooyee tam-tam nag ci conseil beauté saa su ne dañuy indil ay astuces yu nga xamante ne bi daf ñuy jëriñ yomb na c'est facile à faire mm-hmm. te nag defe naa ne euh, mettiwul mm-hmm. te nag ñi ngi ci week mm-hmm. te defe naa ne week bi defe naa ne war nañ ko consacrer tuuti ci li nga xamante ne bi mooy suñu yaram bien sûr ñu ngi lay gërëm di la sant merci merci beaucoup waaye tamit mbokk yi bien-être euh, dafay am solo lool euh, ci biir loolu mbokk yi dañuy ñëw ak suñu xarit Khady di ci bon plan dama koy wax Khady fu ne macha allah lay dem fii ci Sénégal ci Dakar te nag dinañ sax xam naa ne góor góorgóorlu weesu sax parce que nag bon plan ci àddina bi yëpp la am mbokk yi ñu dem xool na la ñu xadi di di indil tey dellu siwaat yaatal waxtaan liggéey bi moom liggéey suul africain la si ñoom lañ ko pour mun naa wax si ñoom lañ ko jëlee bon ñu nag si moom lañ nekk mooy peut-être sénégalais yi foog ne nañ ñun sénégalais yi munuñu ko def mais am nañ doomu réew bi nga xam ne tamit ñu ngi koy def tamit fii si Séné biir Sénégal pas kii parce que chinois yi tamit sax bëri nañ fii ñu ngi koy def mais dafa bëri façon tey mun nañ ne ñun original père bi lañ yor jablonex te day jugee ba.

bon ñun daal lépp lu si per daal yaakaar naa ni bon même si si am lu ñuy jaaxal du bëri. collier tissu nak ça dépend model bi nga bëgg modèle boo xalaat bu nekk ñun mun nañ la ko defaral am nañu collier yoo xam ne tissu lay doon dañ koy di nas amna yo yoo comme bima takku aussi amnañ ko amna aussi benen modèle bo xam bo boobu machallah client bu fi ñëw mom dina am choix waaye collier cherul aussi couleur bo bëgg mun nañ la ko défaral à bon prix aussi collier yi bëri na ay façon amna collier yo xam 5000 amna yo yoo 4000 amna yo yoo 3000 ça dépend dal ba 2000 sax amnañ ko fi yépp ñu ñokay koy liggéey.

que vraiment ça euh, sonne amna yo xamantene bi du ñu joxe fan lañ ko défaré etc mm-hmm. parce que duñu bëgg nit ñi ça sonne di yegg service commercial RTS parce que nak bon plan fi nek pour fësal la nga xamantene bi mm-hmm. mom ngeen di liggéey wala gox ya nga xamantene bi mom ngeen nek di fatali seen numéro de téléphone 849 13 25 sunu xarit Aïcha Aïcha gis nga bon plan bi ñu xadi indil parce que ay bon plan la ñu xam vraiment li nga xamantene bi ñong koy liggéey ci suñu dëkk mm-hmm. mën nañ ko utiliser ci même yéré wolof ak yéré bas. parce que tu Khady Didi euh, machallah allah la mu sol gis nga ko bas large bu rafet la sol sol def ko nak uni dal di jël vraiment collier bi nga xamantene bi benen couleurs couleur mu nek bleu bu xamné dégradé de bleu exactement. Mm-hmm. mais tu sais que collier là ça va pas parti, ça va rester ici. ah ça va rester ici. <laughs> d'accord parce que man dama bëgg collier yoyu dama kay accessoriser ak yére tubaab mhm. comme yére wolof mhm. mais au delà même su fekkee sax sol naa benn débardeur relax de ci def collier bu sew mhm. c'est la différence loolu mooy bon plan vestimentaire accessoirisé. non li Aïcha wax dëgg nee bon plan xali nga bon plan vestimentaire <laughs> man non man xam la moo ma neex ci choix yi <laughs> dafa am ay mbese yu sew

Ah? Mais nañu wax yoo ci teg wolof moo naan ñëpp man daaw xam daaw waaye teg teg du dara. Ah, mais franchement elle a raison et puis j'ai beaucoup adoré parce que des fois damay seetaan film yi. Mhm. comme euh, biñ ñu mujjee seetaan mu tudd. Euh, Black Panther. Mmh.

nag ak été bi xam nga mhm. yi da ci rafet am na mhm. si buñ la won boo xam ne comme euh, baatu yéré. waaw imaginel boo solee sa bustier nga mhm. teg ko si affaire bi day rafet mais yaa xam autre chose rapidement waaye ba tey lii yaa xam même le mettre sur ta tête il faut ma ñëw ak yow tamit waaw waaw xam man bon plan bah, waaw oui léegi nag bii il faut nga takk ka xam nga eh. bii mooy euh, bu vax bi

ah la xam bi. ki bëggul bu mel nii de. da ngaa amul rek. da ngaa amul rek. jox rek muy jox. moom jottali la mais mais xoolal ni nga rafetee. mais greffage bi. greffage bi ñu def nii. te mu nekk ci milieu bi. Ah. del gaaw di fëgg sa dënn bi. <laughs> def ko mu jub sama périr yi. ma def ko mu jub jubula comme ça waaw. Très, très bien. Ni, ni. Voilà. Comme ça Ok. Alors, Khadi, vraiment, merci. Parce que nak, man, damay savoir ci sa bon <laughs> plan. Parce que bon plan Khadi bu rek man Ça c'est magnifique. <laughs> Bravo. Bravo Khadi. Oui, pourquoi tu tu ah, ah, ah, ah, oui, je, suis découragée. Mais <laughs> quand, quand tu nous donnes un peu, ça fait quoi ça fait rien. Ah, ah, aywa une prochaine fois. Cheikh Ali ñu ngi lay gërëm di la sant xam di retrouver Inch'Allah, euh, prochainement c'est-à-dire euh, samedi prochain pour benen i bon plan xadi jërëjëf jërëjëfati te jërëjëf ñi nga xamantene bi dal jox nañ ma li à travers toi parce que yaa ngi may xalaat saa mais ya xam xana ñuy wax rek suñu mbokk jigen ñi ñu doxantu ba fofu di jënd collier yi di ko mhm. booleeg seen yéré rek très très bien merci beaucoup xadi euh, Didi mbokk yi ñu wëyel euh, émission bi yegg nak ci li nga xamantene bi bii moy mooy affairage ak suñu xarit Aïcha ñu dem dellu si Oui, c'est vrai que nous ngi may wax naan ma defaralaatal ki bi xawma ndax la ni la ah, c'est bon très bien alors Aïcha nous ñëw ak yow nak ci euh, affairage te lan la ñuy Aïcha affairage de taille mhm. les les couples à trois les couples à trois ah, polygamie polyandrie en tout cas dalle. Mhm. <laughs> Taille. wa Madame dem France France wa Karine Le Marchand ben animatrice oui oui Karine Le Marchand ouais dafa nekkoon ak di ñaan Thuram mhm. hmm. ils ont des problèmes problème ay procès diffamation te moom Karim dafa ne dafa réseau social parce que nit ñi juger relation hmm, relation français wolof c'est difficile hein? ah. ah sa relation <laughs> voilà non mais attends euh, sa nouvelle relation waaw nee dafa génn Twitter. Mhm. c'est que nouvelle relation bi tamit doy na waar torop. ah bon. à droite de l'écran. Eh, eh. ay waay oh là là oh là là descend. Hmm. Ako ma ko bëgg. kan nga bëgg mais moom la moom la ndeysaan. en chaîne et en or. Ah, c'est son nouveau amour on dit coup de foudre am na. loolu voilà alors c'est vrai que. Bon, moi, je sais pas. Hein, bon, Denis que c'est quelqu'un de très violent, etc. Il paraît. Mais attends, moi, j'ai eu à le rencontrer à Dakar. C'était lors de Africa Live. Mhm. C'était au stade Ibamar Job. Mhm. J'étais là-bas. Je l'ai interviewé. Non, pas c'était là. Euh, je l'ai interviewé. Si, si, c'était là. Ibamar, moi, moi, non, moi, moi, moi, RTS euh, j'étais là et donc euh, interviewé comme on on est koo il a été très calme hein, franchement assez gentil donc donc en fait il est très extraverti il fait beaucoup de de de scènes c'est un artiste à sa manière Dès que les gens comme moi, là, on ne vous a pas demandé, mhm. non, non, non, oui, sa relation avec Josta, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Mon mère n'a gagné. Bon, à, chacun sa manière d'utiliser les réseaux sociaux. Si c'était moi seulement, là, uh -huh. c'est dans Donc, oui, affaire de taille. Ah, mhm. Maintenant, ils sont dans palabre, là. Maintenant, on ne sait pas qui fait qui, qui fait quoi. Hmm. Mhm. En tout cas, là, je vous reviendrai là-dessus bientôt. Uh-huh. Deuxième affaire. Très bien. Shindima. Shindima, la belle Shindima. Eh, Shindima. Ah. J'ai elle est amoureuse. Et, eh, eh, en tout cas, elle est toute mm. jolie. Ah, et, eh, ça, c'est son, son dernier clip, là. Ah, ah. oui, elle m'a envoyé un message, mais de mon côté, mon ami. Mm. <laughs> mon gundé, chacun a son affaire à oh. J'adore. elle est très, très belle, cette chanson. Mm. Elle est trop jolie. Ouais. une femme benen artiste nigérien bo xamné 23 ans là, am wow kiss daniel le tuddu wow. deux jours là leur love sort ah. Saint-Valentin est fini, non Mais rien qui continue encore. <laughs> bras dessous, bras dessous, les petits bisous par-ci, ah, par-là. Ah, ah. Oh, L'amour. Quand tu nous tiens. Donc, on a fini avec l'amour. Mhm. On va partir dans le côté politique. Denis Dem Abidjan. D'accord. C'est ce faut ramener ce Moi-même, je suis. <laughs> Néna, président Alassane Ouattara. Tu sais, moi, je suis sénégalo-ivoirienne. Oui deux nationalités c'est Doudé. Mhm. tout à fait. donc il faut choisir ñetti artistes yo xamné dañuy am euh, succès. waaw ba pare di investir ci Il ok bon y' a Asalfo. ok Alpha Blondy ak Didier Droba. Ah. ce sont des futurs sénateurs. ah, ah oui ah, ils sont là c'est vrai. Drogba, un grand footballeur. Oui, Alpha Blondy. En plus, le mérite. Ah oui, il le mérite. Hein. C'est déjà, gens qui ont vraiment. Euh, investir chez eux. Chez eux, C'est une bonne chose. Ils le méritent. Donc, euh, ça, c'était la politique. Maintenant, on va aller dans la détente. Mhm. Très bien. Affaire numéro 4. Numéro 4. Qu'est-ce qu'on fait, madame n'ont avons montré. Vous allez voir. Vous allez voir. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez Dépôt d'ordre. interdit sous peine de poursuite mystique. Ah. ah. Tant pis. Mané, mhm. mbalit ci buntu jam dañ <laughs> y' a que Aïcha foofu nous amener des choses comme ça. mystique. loolu mooy. yow li mooy sa mais ay en tout cas daal xam am na yoo xam ne am na yoo xam ne dañuy jàngal nga bañ. respecté nga bañ dama lay liggéey. ah gis nga dogal gis nga Dakar ah. wër leen wër leen quartier bu la neex sama benn copain def ne ma yéen lu tax fii mbedd yi ñu bind euh, nu mu tudd interdit d'uriner amande naa mur yooyu rek dañuy saw. seetlu <laughs> leen rek non c'est que léegi la l'homme moo bëgg les interdits léegi dama lay liggéey nga bañ so so am. Ah, sa biir après après loolu ak loolu def naa ne kenn du fa jege. mystique doo daw. ah voilà da ngay xaar ba camion foo bind mystique. waaw dañuy daw kenn du fa da ah, ngay xaar ba <laughs> <laughs> camion poubelle ñëw nga sotti sa mbalit. voilà loolu moom éducation bon nous continuer. femmes Mousse. benn undu. undu <laughs> ah. undu. undu ah, undu bi undu ah d'accord Aïcha lan mo la dal walaay Aïcha lan mo la dal <laughs> man su ma commencé woo man mënu ma nettaal damay yooxu Aïcha lan mo la dal ay undu undu yu def di détail undu yo xam dañuy nek di relax parce que tey la samedi ah waa d'accord ay man je l'ai là monsieur oh, waaw <laughs> donc ça ouais. aussi c'est un affairage bon de ceux qui n'aiment pas les chats peuvent mmh. prendre le mouton le mouton

oui oui. donc pour mon. dernier... tu tu as vu comment elle tape. c'est pas si il faut avoir muscle. Hein. c'est vrai. et On ne faut pas se lève pas pour faire ça. Hein. <laughs> d'accord li entraînement là. ok très bien Légui, donc pour euh, ma dernière phrase vraiment Yaham, je te remercie. <laughs> j'ai besoin de congé. <laughs> congé c'est pas forcer. je suis fatiguée de la fatigue qui me fatigue c'est fatigant. ah bon. Quelle phrase Aïcha pare pas non est-ce que jàng nañu si ngay ji. Aïcha fi mu jëm. je suis Aïcha noppil. je suis fatiguée. de la fatigue qui me fatigue c'est fatigant. voilà fan Aïcha noppil non c'était la fin parce que moi je comprends pas j'ai fait mon affairage tu dis j'ai fait je suis payée pour ça. Aïcha, en tout cas, bravo encore. Alors, elle a su vraiment nous faire rire, Aïcha. Euh, c'est toujours un plaisir de te recevoir, Aïcha. We love you too much. Euh, mais moi aussi, je te love too much, much, much, much. Quand <laughs> on dem aussi, recevoir, c'est invité. waaw euh, vraiment lancer ce clip invité parce que euh, mm-hmm. mais Fatma faut que nous Fatma remercier. Euh, donc je remercier Abdou Salam Ndiaye. d'accord Salam Dandi, Mom habillé robe chemise c'est très joli. merci beaucoup donc 1677 mm-hmm. 481. 24 24. Très bien. Alors, on te souhaite encore une fois un bon week-end. Merci, Akham. Merci beaucoup, à Fatma. mbokk yi ñu dem xool suñu clip bu invité bi dellu nak recevoir ko. Waki lare ma nega Waki lare ma nega Leru jalap ma nega From nothing to something From nothing to something. Yeah, yeah. From nothing to something. Woo. From nothing to something. Sababa wanna di shake. Bulldog the jam def tech. Boy jam on naked jet set. Bulldog the market find me respect. You deal nu face market. They'll check figure it out and They'll jitter mind boy tech. Bull break. Munga cap. Pull any less tech xam naa dina gën a neex sooy bàyyi xel lépp dina gën a neex ñëpp dañu rey seen bopp pour nga mën a dem boog bàyyi xel coro dafa war a jeex benn benn ñaar ñaar ñëpp di la xaar xaar laay dina gàrtaar was born to shine if you don't know don't talk about us foog dafee ma see du ñu jeexasee mel ni dekk see maag yow li ñu bokk dafa gën a bëri xam nga moos fi ñu jóge dafa gën sori suñu tekk la bëgg jóg dem di wëri kenn duñu mën a nigga tekk duñu piis maa nigga never duñu triis maa nigga you know what it is my nigga time is up my nigga 죽였는지 나도 가렴지가 잔뜩 활짝 외로 무는 눈치가 From nothing to something From nothing to something ay neew lañu woon dëgg nga may ñu jënd ñuy reetaan ay gumba lañu woon dëgg nga may ñu gis bu ñuy seetaan ay muuma lañu woon dëgg waaw mbokk que nag euh, mu doon sunu euh, euh, clip une juste une partie sunu invité surprise Malcolm dañuy kontaan saa su parce que nak bu ñu gisee ay ndaw yu nga xamante ne bi ñongi yëngatu bu baax baax ci walu musique bi dañu ci lol lool surtout nak den recevoir ci RTS 2 encore plus proche de nos populations mm. tay vraiment nga présenté nous ki nga xamante ne bi mooy sunu invité wa invité mu ngi X donc dalal jam, ci plateau Tam Tam euh, mu nekk artiste boo xamante ne si li ma gën a neex ci moom dafa am yar ci bind bi. macha allah am yar ci solo bi c'est-à-dire xam nga des fois mag ñi. lu tax mhm. bëgguñu seetaan hip hop. Mhm. en général mooy ni ñuy solo ni ñuy waxee. Mhm. mais moom bokk na ci rare artiste yi nga xamante ne si boo ko xoolee sax concert. da ngay am envie de ko solo pour mu pour mu def hip hop. donc j'en profite pour te dire salaamaaleykum dal jàmm ñu bàyyi la nga nuyu. bon maa ngi lay remercier d'abord ci témoignage boobu. maa ngi nuyu waa Kaffrine yëpp di nuyu waa Cap Sud di nuyu waa Sénégal ñëpp. di nuyu jongoma yu taar yi ma fekk ci <laughs> ak sama cheikh bi sama sëriñ la moom. sama artiste la sama sëriñ la di nuyu ñëpp daal ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan euh, Tam Tam ci émission RTS 2. Euh, clip bi. bëggoon naa nga ñëw ci From Nothing to Something. waaw from nothing to something moo anglais la mooy koo xamante nii dafay jugee ci dara pour dem ci dara. Mm-hmm. parce que samay début bi may commencé rap dama sonnoon trop ci biir parce que mm-hmm. parents yi ànduñ ci woon. Mm-hmm. li ngay demee studio yaa koy lijjanti. parfois nga jaay say affaire pour dem parfois nga ñaan yenn gars yi doo duñ sax xam ne loolu nga koy doyee. léegi nga dem ba am possibilité. ay nit ñolay wop nga ñëw enregistrer seen studio mhm. nga dem ba am possibilité ay euh, structure mhm. Yo xam ñolay gérer say vidéos et tout mhm. donc té lool moo tax ñu guéné from nothing to something té amna yenen affaire yo xamanteni amuñu ko won au début instant bi alhamdoulillah quoi. manam dooree ci lu nga xamanteni bi du dara. waaw dem ba dal affaire yi. waaw euh actuellement lan nga nek di def di liggéey xam nga baax na jeunesse bi. Mm-hmm. nga bañ a focaliser juste ci làmb ji wala juste hip hop bi. Mm-hmm. yow X2Mind lan nga nek di def et puis est-ce que def nga ay formation pour mën a nekk artiste. waaw bon man nag euh, bi ma demee ba niveau terminal. Mm-hmm. après j'avais jugé nécessaire que puisque dama bëgg musique. Euh, mu jaral ma ma dagg euh, cours académique yooyu. dem defi formation à l'école nationale des arts. daal def foofu laa defee sama formation daaw am sama diplôme mu solfège donc euh, instant bi je suis à l'aise pour nek artiste quoi parce que xam-xam yi ma xawoon manqué am yu ma ci am touti mhm. donc euh, des na ba légui mhm. parce que art mom dafa yaatu il y a beaucoup de choses à faire et instant bi tamit déposé naa sama CV mais ngi ñaan ngeen ñaanal <laughs> ñu ngi lay ñaanal bu baax mais nag bu euh. l'importance justement connaissance en musique ci un musicien waaw waaw parce que euh, clavier c'est sama instrument de base. Mhm. donte moi ci trop. Mhm. mais maa ngi ciy góorgóorlu. très bien en même temps aussi mën lire partition. amna yu bëri yo xamanteni dal daal ko defal sama bopp instant bi. Mhm. ok actuellement est-ce que amna ay projet yo waajal et puis yo fan nga commencé def kan mo la inspiré ci hip hop parce que baxna fum fu toll actuellement ñepp bëgg def hip hop. Mm. wala ñepp bëgg def ay vidéo rigolo sur internet. Mm. mais est-ce que pare nga nga xam ne nekkul loo tew ne mu mat parce que ay année la et puis amna ñu lu ci wara suivre aussi. Wow, parce que bi may commencé euh, c'était à Kafrine, mhm. boobu maa école. di sàcc di dem concert di tëb mur di dem concert di def comme nous bëri nous ko commencé quoi mhm. c'était à Kafrine. affaire chalet quoi waaw affaire chalet. <laughs> parce que man y a le man dama teel a bëgg rap quoi mhm. à cause de Tupac. Euh, ah j'adorais ce gars-là Dieu Mama. bon moi mooy sama son favorite quoi Dieu Mama ak Gero Gospel mu nekk loo xamante c'était pas Tupac en tant que tëgg moo ma neexoon mhm. mais l'histoire en fait yaayam nu mu meloon ak moom nu mu jëlee décision ne carrément da ciy génn mu mhm. neex wala mu naxari mhm. détermination boobu noonu ça m'a beaucoup inspiré ba léegi nii ça continue à m'inspirer parce que instant bi àdduna mënoo hip hop te doo def tudd Tupac oh. alors que ci dara la jógee quoi ci loo xamante ni mooy góor góor laa gëm naa ne war naa ci mën a génn te nii laa ci génn waaw la it's like that. <laughs> non non non yéen ñaar seen lecture dina mën a dem. alors projet actuellement fu mu toll. ba instant bi ni am na vidéo bu ñu war a génnee. Mhm. on est des poteaux. Mhm. déjà on a fixé une date pour loolu noonu. Mhm. y a aussi deux singles yu nekk euh, au studio. yooyu dañ koy commercialiser. parce que dafa bokk ci benn projet bu ñuy wax Kankara. projet mixtape la bu ñu war a génnee. donc euh, instant bi loolu moo fi nekk à part que amna yenen tournée yu def parce que dem Fouta. ci mois d'avril bi. on a aussi trois showcases à faire donc alhamdullah quoi pour le moment. mais mais avant continuer wala ma ak sama ni. est-ce que meun nga ñu ben freestyle yëngalal ñu suñu plateau bi samedi bi gaay yow. <laughs> Ah, loolu ah, <laughs> ñu terminé allez on va ah ok. wala. non non non non c'est parti. bon freestyle bi nak dama kay moy jigéen ñi nga xamante ay xalé lañu. bëgg nañu dund life mais comprendre luñ tu vois ay innocente lañ quoi mais li ñuy influence bi ci biti rek ñom loolu lañu bëgg dund. c'est un peu ben texte la quoi. ok on y va c'est parti <coughs> gis naa ni da nga yaru. da nga taaru da nga baax di nga bëgg génn yenn saa yi doo ko mën a waax sa xol bi dafa toj billaahi neexul a raax di nga dox ba réer ni faax mel ni ku nekk ci taax bëgg a nekk pi taax gaaw naaw kenn du la gisati ay góor yu sonn ñàkk jom doom réere lu bëri ci say góom di xaritu kon doom du koŋ ci ndong mooy tax ñu bañ a gisati fu nañu bisati wisati curay fen fa nga bàyyi si xel ndax ñàkk xam du ray fen lu tax nga bëgg a nekk biir ci télé sa life yow waroo mën a nekk biir ci télé sa life di fen di fen di fen di télé sa life fu ne nga mel ni air bëgg il faut nga bàyyi si xel te àdduna bii duñ ko tënk si xel yow da nga bëgg a mel ni ku ne bëgg dund lu ne bëgg-bëgg yi bëri ba tax nga nekk cuune léegi firil say nopp na ex to mind buy rab de mel ni ku leen di foop lii ma bëgg mooy nga nekk succès gàllankoor warul tax nga tipse li maire bi daj ci diiru ay biste li paa bi dox ba lot mënoo ko fixé ci benn yoon

Tâm tâm chân tam-tam amul yokk ko kii actualité bi mooy coupe du monde bi waa FIFA indi fii ci Sénégal ngir présenter que réew mi ginnaaw ba ñu qualifié ci coupe du monde bi du Sénégal nee a ndax coupe sangal kam la ci kaw loolu pa bi Sénégal mën naa gagné coupe du monde dajeek Brésil final waaye ci kaw loolu faw mu def ñaari sarax sarax bu njëkk bi mooy kii di Selbé Ndom da ngeen koy génnee Sénégal yóbbu ko Syrie ba coupe du monde bi passé ñaareel sarax bi mooy Youssou Ndour ci boppam sarax équipe nationale ba bañ nan waye dabu lan waye ñu toog ci premier tour tam tam cëm tam tam amul yokk kokki xibaar bi mooy waa SAES e di syndicat pour l'augmentation éternelle des salaires nee nañu dinañ pëndal Sénégal ndax gouvernement Sénégal respecté wu leen ci kaw loolu policier yi mer ba sànni benn grenade ci biir école Dakar Plateau ba ndekete xale yi ñoo for grenade ba di grenade bu bees lekk ko ndekk grenade moo tax orange tam-tam jëm tam-tam amul yokk ki xibaar bi musique la ak lamb ji muy am ñaari félicitation spéciale ben bi moy félicitation à Viviane chidit Ndour ndax concert zenith ba fees na na nit macha allah ndax Bouba Ndour dafa yaakaaroon ni bu baye Viviane mu torox wala dotul bax ci musique waye Vivi félicitation félicitation spéciale tamit ak Boy ndax Boy dan na Sa ties di yafus cim tam-tam cim tam-tam amul yar ko ki xibaar bi xam ngeen ko moo di Donald Trump dina ñëw jam ñaar jël le 28 mai di bés bi nga xam ne ci la def pose première pierre palais présidentiel bu bees bi ñu war tabax moom Donald Trump nag nee na balaa mu ñëw Sénégal kaw faw ki di Idrissa sek naan di taas ak Macky Sall président ñu juboo mu doog a ñëw tam-tam cëm tam-tam amul ki actualité internationale ci Russie Vladimir Putin gagné na élection yi te commencé gul ci Chine shippi mii mooy président ba def nañ ko président à vie maanaam ku sëqat dee kii nii nag mooy Kim Kardashian di jigéen ji gën a sell ci àdduna nee na ko jox vingt millions de dollars te mën i bagage mu bàyyi jëkkëram ànd ak yow man de cent millions jaral na ma ko waaw kooku nag mooy suñu xarit euh, euh, Bichichi euh, Malcolm très rapidement ñu sànni dara ci li nga xamante bi la ñu indi tey <laughs> donc man li ma ci gën a am importance moo ne coupe du monde bi mhm. parce que coupe du monde bi dëgg la bu jotee dañuy waay mais xam nga par exemple américains yi mhm. ñoom dañoo tàmm dara ñoom même coupe du monde ñàkk coupe du monde dañuy soutenir seen dëkk kon ñun ñëpp nañ soutenir suñu dëkk waaye am na ñoo xam ne dëgg yàlla nee bu <laughs> <laughs> <laughs> très bien en tout cas ñi ngi gëreum bu baax suñu xarit euh, Bichichi mbokk yi vraiment euh, continuer parce que yeneen un programme fay am fi ci euh, RTS 2 en tout cas nous ngi euh, remercier sunu invité bi diko ñaanal encore une fois vraiment bonne continuation ci le mu muy rap merci beaucoup bien des choses à la famille hein? merci beaucoup donc maa ngi remercier sama mhm. maman surtout parce que à chaque fois elle se décarcasse pour nous di remercier sama soxna yi fa nekk yépp ak sama grand yi ñoom Moustapha Asim ñëpp di remercier waa Kaffrine ak waa Kapsi quoi mhm. très bien euh, j'ai pas compris sama soxna yi ça veut dire bay samay jabar lañ quoi sama grand frère. ah d'accord c'est à préciser. alors merci beaucoup parce que vu fait bise dans clip clavier. <laughs> Ah, waaw Aïcha ñu ngi lay remercier. maa ngi lay remercier bu vraiment dañuy kontaan boo toogee ci plateau. Ouais, ouais. tey tu as réussi à me faire couler des larmes. encore Ouais. encore. très bien je vous remercie dit nous, téléspectateurs et de leen jox jeudi prochain inchallah dans la rubrique coup de cœur très très bien en tout cas ce coup de cœur bi la dernière c'était magnifique Merci. Malcolm ñu lay encore une fois plaisir de te retrouver pour référence Cette semaine bi inchallah inchallah waaw euh, ma leen di jox dig daje comme par bu bi ñenn inchallah <laughs> la grande Saint-Louisienne euh, Khady Didi yow tamit saa su ne rek la ñuy yow en tout cas malay remercie remercier bu baax baax ci cadeau yi may indil sa su euh, te di la ñaanal jàmm ak salam. di fàttali bon plan ci ak euh, RTS hein. service commercial 849 13 25 merci beaucoup merci man maa les remercier parce que lu ma def rek si yow donc ah, xam nga donc maa ngi aux téléspectateurs et di leen euh, rendez-vous samedi mm-hmm. prochain ci un bon plan te rek di leen di fàttali bu ñu ñu dem wuti collier yi. foofu ci Carmel. C'est vrai, c'est vrai que l'ingénieur pour c'est extraordinaire et je vous reçois tous et toutes euh, vraiment avec un grand plaisir comme ça. Et vous aussi, très certainement, vous nous recevez avec un très grand plaisir. Nous sommes avec un grand plaisir. Alors, qu'on a plaisir de partager avec tout le monde. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés. Mais remercier Sally Anne Labrosse, euh, Norfois, Tikwa Furi Sassoune, qui le numéro de téléphone est affiché. Je remercier très fidèle Mariama Magasuba nga xamné té sa su ya xam solo rek téléphone 77 634 44 11 Padua Builders villa numéro H56 bonne suite des programmes sur la RTS2 au revoir